asalaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan ci Senweb TV ak senweb point comme bienvenue ci seen plateau bi ñu leen di jagleel mu di ultimatum du lundi au jeudi ginnaaw démb bañ leen jagleel benn ci numéro tey nag ñu tëjee ko ak semaine bi wax ci li nga xamante ni moom moo di actualité bi actualité bi nag fi mu nekk nii euh, li ko gën a rek daal di yëngal bokk na ci li nga xamee ni moom moo di rek euh, propos yi nga xamee ni euh, Chérif Ibrahim Aïdara jëmlee na ko ginnaaw bu mu nekkee membre ci ànd sàmm jikko yi def yéen ci ay révélation relation jëm ci euh, kon ndaje ma nga xamante ni waroon nañu koo am ak euh, président Macky Sall waaye coow li ne kur nag ci yenn ci kàddu nga xam ne génnee na ko jëmalee ko ci genn xeet mu di euh, wolof yi jur coow itam jamono ji digganteeg ñi di waxtaankat yi alors loolu lépp daaneen ko faram-fàcceeg yeneen i poñ ci biir kon jotaay waxtaan bi le duñ ci ànd nag ak kenn ku dul kii di Serigne Ababacar Mboup moom mi nga xamante ni moom moo yor lépp lu jëm ci jokkalante gi buñ jikko yi laataa ma ko jox nag moom buubeen gi kàddu bi muy muy kii ñu bàyyi ko tuuti mu xaw a reesal la mu jëfandikoo Babacar ñu nuyoo te bàyyi la ak internet yi. bu ci boolee tuuti ndox xam naa moo koy gën a arrangé jàllale ko noonu dañuy dañuy xëy di ci nekk ba 15 heures. bilaay mi ngi mooy baax. <laughs> aywa maa ngi di ko nuyu également di nuyu mbokk internet yi Sénégal nga xam ne saa su ne ñoo ñu topp seen émission ultimatum amat nañ mbégte teew fas ak ñoom ci li xam ne moo ñëw wàllum actualité jërëjëf Babacar Kébé euh, Babacar mi nga jàkkaarloon mbubbeen bi maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> waaw soxna Aida maa ngi lay fay. Mm-hmm. Eh, di nuyu sama turando turam bi mm-hmm. neex na waaye sant bi doy na waar. <laughs> Eh, di nuyu mbooleem eh, internautes yëpp. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ngi suivre Seneweb rawatina ñuy topp émission bi di ultimatum. di nuyu aussi askanu senegal yëpp. góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn. di am mbégte aussi vraiment ci jotaay bi. jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar ñun itam am nañ mbégte ci ni nga ñu nangulee li nga xamante ni moom moo di euh, kon woote bile alors euh, du ñu naak euh, ni ki sànq nag fi mu nekk nii gis nañu sumboon ngeen benn kon xeex mu di jëm ci wàllu góor jigéen fii ci réew mi tegoon ngeen di jéego itam mu jëm ci li nga xamee ni da ngeen di jébbal ab loi boo xamante ni sabab lu ngeen ngi ñu càmbar ko ci assemblée nationale proposition ba fi mu nekk nii daal ba mu tàggatémbee toftal ngeen ci benn sitting mën nañ koo waxee ni euh, euh, waxtaan ci li nga xamante ni naqari na leen ci mbir mi de euh, fileek boobee ak néegi nii ñu toll lan moo tukkee ci xeex boobu ngeen entamé. waaw jërëjëf soxna Aida mm-hmm. xam nga bi ñu bi proposion de loi bi duggee à l' assemblée nationale. Mm-hmm. bureau assemblée bi daf ko daf ko bloqué. blocage bi nag mi ngi ko teg ci ak jalgati jalgati yoon. Hmm. am teguñu ko ci yoon dañ ko dañ ko jalgati xam nga réew mi. Hmm. réewum yoon la. Hmm. wala bokk jàpp nañ ni réewum yoon la. réewum yoon lan la firi mooy lépp loo xam ni citoyen bi wala institution yi dañ koy def. dañ koy dëppale ak li yoon tëral. maanaam kenn du jóg rek daan ni lii sañ naa ko def dama koy defee nii loolu dafay fekk ñu encadré ko xamle loolu lan moo ci say prérogative mm-hmm. fan nga sañ tàmbalee ak fa fan nga sañ a mm-hmm. bu dee ci cas d'espèce bi muy assemblée nationale mm-hmm. xam nga le règlement intérieur de l'assemblée nationale muy loi organique moo leen tënk lépp lu ñuy def moom mooy wax lan mooy seen i sañ-sañ ak naka lañ koy doxale boo càmbaree dem ba ci biir ci article 60 bi <coughs> moom moo xamale mboolem luy procédure ci proposition de loi projet de loi nan la war a doxe hmm. ak naka lañ ko war a doxale article 60 bi dafa wax ne <clears throat> ñoom suñu jotee proposition de loi acte bi bureau bi njëkk a def hmm. mooy nañu yëgal plénière bi maanaam député yépp hmm. nañ yëgal assemblée bi ni leen proposition de loi agsi na fi ñoom ñu constaté ko alinéa 1 bi loolu la wax ñu constaté ko suñ defee loolu nag moom na bind président de l'assemblée na bind bataaxal ki indi woon proposition de loi bi wala ñi indi woon proposition de loi bi xamal leen ni yëgle na ko. Hmm. li mooy alinéa xam nga loolu. Hmm. kenn sañu koo teggi. parce que yoon moo tëral ni noon ngeen ko war a doxale hmm. lii ma wax ni ba tey ji amul. ba tey ji ba ngeen nii la wax lii ma la wax amul. respecté wuñ alinéa 1 bu article bu bu euh, kii bi. fan fan lañ teg kon. Euh, non def lu leen neex mooy jalgati yoon gi ma la wax nii loolu mooy benn élément bi deuxième élément bi boo lemee ci alinéa 3 bi. dafa am leneen lu mu wane. Euh, ak alinéa 4 bi ak alinéa 5 bi. dafa wane ni ñoom suñu defee loolu ba yëgle ko ba pare léegi na bureau bi daje ndax xam nga proposion de loi dafa am ci nuñ ko war a tënk tënk googu nag bureau bi ci boppam moo jox sañ-sañ euh, plutôt règlement intérieur bi moo jox sañ-sañ bureau assemblée nationale ci buñ fa indee proposition de loi walla sax ab loi dugg fa projet de loi dugg fa mhm. wala sax proposition ba tey. Mhm. mais am député yi am ci ay amandement mhm. xam nga amandement bokkul la proposition de loi. Mhm. léegi amandement yooyu ak proposition de loi bureau bi sañ na koo bloqué ci kaw. lii ma lay bëgg a wax. sañ na koo bloqué ci kaw lii ma lay bëgg a wax bu fekkente ni am na insidence financière. c'est-à-dire amendement bi suñ ko dugalee ci projet wala proposition de loi bi. wala boog proposition de loi bi su jàllee ba doon loi dañuy gis ni dafay fekk ci. ressource yi réew mi amoon. Mm. muy alalu réew mi. Mm. mu am lu mu ci dagg. bu boobaa yoon moo jox bureau assemblée mu bloqué ko. Mm. ou bien mu fekk réew mi am lu mu yanu. war a yëngu ci sécurité war a yëngu ci éducation nangam nangam charge publique yi. mu am lu mu ci yokk aggravé ko. nga xam ne am na lu réew mi yan woon ba noppi. Mm-hmm. proposion de loi boobu bu jàllee. wala amendement biñ ci dugal. dana fekk réew mi li mu tegoo woon mu gën ko dolli. Mm-hmm. waaw loolu gars yi kebe kebe yi di def nga xam ni bu ñu bokkee ndab gars yi xewlu ba noppi faaw ñu am fu nu jaatat am lu ci tegaat léegi ñu ni loolu kon charge publique yi aussi bu fekkee daf koy dolli loolu yoon moo jox bureau bi na bloqué proposition de loi bi wala na bloqué amendement bi mm-hmm. lii la leen yoon sant ñaar yi ci cas d'espèce bi mm-hmm. te ñun proposition de loi bi amul benn incidence financière ñaar yi dama doon wax sax ni jalgati yoon bi xam nga ni jalgatiwaat la. parce que yoon moo leen wax ni lii ngeen war a def te lii. Hmm. alors ñoom kon ñu ni leen bu ngeen di statuer da ngeen di statuer vérifier ndax dafay am insidence financière. Hmm. te sax boo seetloo ci alinéa bi indi na sax possibilité ni même buy am incidence financière. député yi hmm. nañu wax proposition loolu naka lañ koy régler. n'est-ce pas voilà waaye loolu amul kon ñaareelu jalgati yoon mi ngi noonu. ñetteelu jalgati yoon bi bureau assemblée nationale dafa jox boppam sañ-sañ yu mu amul mooy statuer sur l'opportunité d'une proposition de loi daf ci statuer hmm. te amul sañ-sañ boobu yoon joxu ko ko te yéen ci seen bos noonu la demee exactement noonu la demee ah. dafa statuer ci l'opportunité hmm. lii est-ce que warees na ko war loolu yoon sant ko ko fan la ko sukkandiku pour def ko amu ko hmm. amul sañ-sañ boobu nga kon trois violations de kii yooyu alors kon loolu moo tax <coughs> bi mu amee bi ñu ko defee ñun ñu gis ni ah ñun jàpp nañ jusqu'à preuve du contraire ne rek réew mi ñun dañu gëm ni réewu yoon la. Mhm. kon li nu yoon may nañ ko def. député yi nga xam ne ñoo dugaloon proposition de loi bi relancer le président de l' assemblée ni quoi ah, ñun ko dañoo gis ci réseaux sociaux yi rek benn communiqué boo xam sax c' est pas signé le 5 janvier 2022. Mhm. pour wax ni le bureau de l' assemblée réunir na rejeté nañu proposition de loi bi. te te te député ya ya ya ya gàlloo woon yóbbu proposition boobu yëguñu ko. informé wuñu leen par voie de presse nii dong lañ gis communiqué bi daw communiqué bi di daw na. te loolu tamit beneen jalgati yoon. parce que dañ ah. leen wax bu ñu décidé. Mhm. gis ne incidence financière am na ci nañu bindaat ñooñu. Mhm. xamal leen ni lii moo tax. ci incidence financière lii moo tax ñu décidé. donc yéen ba léegi jot leen benn notification. déglu li ma doon ci presse bi. <laughs> ci presse bi lañ ko gisee alors ah. ñun ñu waxtaan député yi saisiraat le président de l' nationale mhm. le 5 janvier lañ ko rejeté mhm. le janvier ñoom ñu ñu ñu ko ni ko mais ñun dañoo gis benn communiqué buy daw xamuñu sax ba xam c' authentique ba xam ci yéen la jógee mhm. d' ailleurs bi gis nañ ci ñu wax ni euh, bizarrement mu xaw a nuroo lool ak communiqué bi benn bokk yaakaar bureau. ñoom ay mairie defoon exactement propos a malheureusement pratiquement ce sont les mêmes lañu utilisé. ñu ne ko ñun nag dañ ko gis dañu xamul nag ay xale yu doon fola daal koy bind rek def ko au nom de l' xamu quest léegi qu'en lan la ñun dañu bëgg xam ba xam lan la ndax mm. suñ proposition de loi ba daje ngeen ci ak bu fekkee daje ngeen ci lan ngeen ngeen saisir alors le 20 le 30 janvier le président de l'assemblée soog a bind bataaxal pour tontu saisine bi ñu ko def nii ci le 20 janvier. pour wax ni way euh, daje nañu effectivement rejeté nañu proposition de loi bi parce que euh, li mu bind sax kenn xam ko parce que li ngeen jàpp du noonu point final daal dinay jeex. li ngeen jàpp du noonu moom mooy waxi la ndax kenn xamul li ngeen dugalee proposition ba loi ba la ngeen ca tëgg dafa yelloowut ak li leen yoon may ah kañ wala lu lu leen ah, ah, jox kañ xam nga moom dañoo wax ni réewum Sénégal mii di république du Sénégal mhm. pour loi am ñaari yoon dong moo ci am ou bien gouvernement bi moo koy porté mu doon projet de loi ou bien député un député un seul nag mhm. mën na ko porté wala boog plusieurs députés mu doon proposition de loi. Mhm. te itamit lu ñuy bind lay doon. yoon moo wax loolu. du doon loo xam ne da ngay ñëw rek damaa bëgg proposition de loi lu ñuy bind lay doon mu nekk ci kayit dafa am nu ñu ko war a bindee yi tamit mhm. su ko defee ñu jébbal ko le président de l'Assemblée nationale mhm. lii de la yoon wax donc kon jébbal nañ ko wax naa la sànq ci sama kàddu yi tamit ni la président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne moo jiitoo assemblée jiitoo yi tamit bureau de bureau le bureau bureau boobu may nañ ko yoon moo ko may sañ-sañ bu ñu fa indee proposition de loi na ko càmbar xool ndax amul incidence financière. Mhm. di dagg ressource réew mi wala muy accroître wala muy aggraver les charges mhm. lii ñoom yoon may nañ leen ko. Mhm. waaye yii yëpp defuñu ci defuñu ci dara. alors loolu nag bizarrement bi mu amee euh, mujj nañu finalement yónnee bataaxal boobu. d'ailleurs dañoo permettre mu rebondir sax pour wane ni. ñoom argument yi ñu avancé rek mooy la loi existe déjà. beneen bi ci des mooy eh, beneen bi ci des mooy président wax na ci man dama jàppoon ni réew mi wax dëgg yàlla principe séparation des pouvoirs moo fi am man loolu laa jàppoon waaye maa ngi soog a xam ni ndekete kon dëgg-dëgg séparation des pouvoirs amu ci xam nga loi président du ko defal l'exécutif du ko def mhm. loi laa wax mhm. ñoom projet de loi lañ man a def moom la président mën a def projet de loi mhm. mais loi moom ñoom yoon mayu leen sañ-sañ ñu def ko ñun réew mi ay loi moo ko tënk. xam nga su fekkoonte ni léegi dañoo d'accord. Mm-hmm. ñu ni léegi kon président wax na ko à partir d'aujourd'hui nañ considérer de Sénégal nañ dissoudre la constitution. Mm-hmm. dissoudre loi ak règlement yi fi nekk yépp mm-hmm. léegi bàyyi kàddu président rek mu dox. est-ce que ñoom staté wuñu ci groupe de personnes bi. ndax xam nañu ne groupe de personnes bi quel soit alpha tamit ñoo nekk ci ginnaaw projet de loi même bu fekkee benn député la ñu ko jox wala ndax staté wuñ ko ni projet de ndax excuse bi ñu joxe mooy. am na loi bu fi nekk déjà wax na ci lii déjà donc soxlawuñu beneen di ñëw di teguwaat ci kanam mais est-ce que bi ci gën a am solo ñoom ñu jàpp ko nekkul ne groupe de personnes bi mu nga xam ne moom lañ jàpp ne projet de loi bi moom moo ko porté. ñu jàpp ñi ci opposition bi lañ nekk. Mm. Euh, wala je sais pas comprendre. ma ne ndax jàpp ñu ne groupe de personnes bi mooy ànd sàmm jikko yi. ah ok ñun. waaw d'accord waaw. léegi parce que xam nañ ne proposition de loi bi quel que alpha benn député la war a doon. mais ñoom est-ce que demuñ au-delà de ginnaaw benn député boobu jàpp ne quel que lu mën a xew tamit proposition de loi bi ci benn groupe de personnes la jógee. non du tout xam nga bu fekkonte ni tey ñoom ci procédure. waaw ñoom permettre nañ par exemple ñu déposer waale les signatures des sénégalais. Mm-hmm. dañ ko déposer parce que loolu soo ko ci déposé woon motif lay doon buñ ko rejeté parce que loolu warut a bokk ci. voilà euh, loolu bokk ci. non mënu ci bokk parce éléments yi ngay déposé aussi dañ koo xam lettre bi ngay adressé président lay doon. Mm-hmm. jëmmi proposition de loi bi lay doon donc loolu la war a doon mënoo cee yokk beneen élément wala beneen document boo ko ci yokkee loolu objet de rejet lay doon mm-hmm. n'est-ce pas mais ñoom xam nañ en âme et conscience ni loolu du mbirum ànd sàmm ji koy kese mm-hmm. mbirum peuple sénégalais la euh, sëñ Babacar xam nga parlons peu et bien 2019 ñun on a commencé la tournée la bi ñu doon def ci proposer pour la la, la, la lancer la pétition ak informer le peuple sénégalais. 2020 mhm. lañ ko commencé. d'ailleurs en fin 2020. lañ mhm. commencé la tournée nationale. Mhm. pétition 2020 waaw mais 2020 ak 2019 ban moo ciy jiitu. 2019 je pense 2019. la sëñ Babacar Sy toog gàmmu Tivaouane cérémonie officielle bi mhm. interpellé officiellement le gouvernement du Sénégal ni leen nañ wax ci mbir mi par la voix du ministre de l'Intérieur loolu kon nan la ñu mën a waxee ni ñu loolu problème mu benn groupuscule kese la mhm. sëñ Babacar Sy Mansour mooy Sénégal mhm. am déet parce que loolu mu wax mooy li sëñ Mountakha wax li mu wax mooy li xalif yi des wax ah ndax jàpp nañ ni ñoom seen wax yi sax ndax compte ah, na est-ce que ñoom jàpp nañ ni ñoom seen kàddu compte na mm-hmm. suñ jàppoon ni seen kàddu compte na sur le champ loolu dana am effet mm-hmm. mais jàppuñu ni suñu xalifa yi seen kàddu compte na jàppuñu ko d'ailleurs ñoo ngi leen assimilé ci ay citoyens ordinaires citoyens yi nga xam ne lañuy ñuy ci yenn affaires yi dama lay renvoyer rek ci la euh, référendum bu 2016 mm-hmm. président bi mu décidé ci lu demee ni soppi constitution bi ñan la consulter citoyens yi nga xam ne duñ ay citoyens ordinaires. le mm-hmm. président de l'Assemblée nationale ak le président du conseil mm-hmm. euh, du, mm-hmm. pas. ñooñu la seen avis compté mais sëriñ si xalif généraux yi seen avis compté wul il faudrait que loolu ñu xam ko waaye malheureusement. c'est ça mais bu ñu jaaxlee foofu la ñuy ëlbateeku. waaw mais non sapeur pompier lañu. waaw <laughs> c'est-à-dire ñoom bu bala ñoo dem ci ñoom déglu leen rek. dañu amatuñu solution. mbir mi waaye tant ñoom ñoo ngi gis ni. réew mi ñoom ñoo ngi koy mën a doxal wala di def seen i mbir. loolu boole wuñ leen ci ay citoyens ordinaires lañ leen jàppee xam nga loolu moom mooy malheureusement li am sànq sa biir sa biir wax am na élément bu am solo boo ci dugal. Mm-hmm. ci est-ce que groupe yi ñu jàppe nii rek mais am na leneen loo ci loo ci loo ci waxaat. Mm-hmm. loo xam ni bon vraiment bëggoon naa ci rebondir aussi. Mm-hmm. lu am solo la. xam nga même su fekkonte ni benn groupe yu groupuscule kese la. waaw mais ñun am nañ droit bi ay sénégalais lañ di. Mm. ay citoyens lañ. Mm. léegi nag li am solo rek mooy lépp lu ñuy def nañ ko dëppale ak yoon cest à yoon bi mm. même suma ma ci yoon ni ñu ko tëralee it naa respecté yoon boobu ba bis bañ koy soppi ñu mm. xam ni soppi nañ ko bu boobaa yi ñu xam ni sénégalais yi ñoo ko bëggaloo mm. man citoyen sénégalais la mm-hmm. constitution bi dafa am cër yoo xam ne daf ma ko jox man kese laa wax individuellement mm-hmm. prix individuellement am na sañ-sañ xam ne constitution bi jox na ma ko mm-hmm. sañ na maa wax sama xalaat sañ na ma ko bind. sañ na ma koo mhm. fësal ci nataal ni ko constitution article dix bi euh, waxe sañ na maa sax génn euh, ñaxtu wane sama mbégte wala ma wane sama sama naqar. Mhm. loolu constitution moo ko consacré citoyen yëpp am nañ mhm. waxuma la nag ay citoyen bu ñu àndee. te ñoom ñu xam ci seen biir actuellement ni lii dépassé na ay mbiru kenn nit ñaari nit. mbirum askanu senegal yëpp la gis nga ñaari manifestation yi ñu fi def ni mu demee. loolu benn lañ ñaareel bi ci des vraiment c'est regrettable bu ñu bëggee invoquer naan ni loi bi amoon na. loi bi amoon na non seulement la loi n'existe pas mais supposons que loi bi amoon na. ah n'existe pas maa ngi ñëw supposons que la loi amoon na. Mhm. même bu loi bi amee mais bari na fi loi yu amoon ñu jëlee ko ci pénalisation yóbbu ko ci euh, yóbbu ko ci renforcer ko wala augmenter daan yi wala ñu mhm. criminaliser ko. Ah, am na fi yu bari. kon xam nga d'accord nañ kon loolu du du lay. Mhm. mais la loi n'existe pas. la loi l'article l'alinéa 3 de l'article 319 di code pénal xam nga lan la wax. li muy condamné mooy l' acte sexuel maanaam c'est-à-dire acte contre nature boo xam ni deux personnes ñoo ko seq de sex sexe loolu mooy jëmmi sëy bi mais l'homosexualité dafa dépassé loolu. ah ñoom men jàpp nañ ne hmm. li ngeen di xeex déjà li li koy déterminer mi ngi ci loi boobu. rek tënk na wax déedéet acte contre nature. déedéet acte contre nature. Hmm. mooy jëmmi euh, ñaari way dencente maanaam góor ak jigéen jëkkër ak jabar. Hmm. suñu tëjee seen biir biir nekk ci seen intimité. acte boobu ñu posé lool lañ tere ci loolu la loi bi tere ci góor ak góor di ko def wala jigéen ak jigéen di ko def mm-hmm. mais loolu rek du homosexualité homosexualité mm-hmm. par exemple la fait que tey jii ñaari góor jàppante seen loxo mm-hmm. dem ci imam wala ci église bi ni leen maye leen ñu xam nga ko defaguñu acte sexuel bi mais loolu yoon terewu ko yoonu Sénégal terewu ko mais dañ leen di daan ndax président bu ñu ko dégloo ci ay waxam nee na bu ñu sukkandikoo rek ci article boobu daan nañ fi ay nit non dafa mel ni li ma wax déggoo ko de dama ni. Mhm. non comprendre naa fi nga waxee exactement parce que lu passé guñ dans l'acte. Mhm. exactement. waaw mhm. exactement. cest mais yow comprendre nga li ma. mooy réalité socioculturelle c'est ça cest jëmmi ñaari góor yu demoon ñu war leen a maye loolu yoonu Sénégal terewu ko bu ñu fi waroon def ay gay pride tey jii loolu yoonu Sénégal terewu ko. loi bi daanu ko. yow loi bi terewu ko amul fenn fu mu ko tere loolu defee naa ku mën a doon ci àdduna bi indil ma. tey li ma ci jaaxal mooy saa saay boo sukkandikoo ci seen ay kàddu dañuy jëmmal que ni lii ngeen di wax nii yëpp mi ngi ci biir loi bi. te te te te daan nañ ci ay nit. amul non seulement amul amul waaye boo seetloo. Mhm. Euh, mën nga delluwaat rek. Mhm. Euh, ci EPU bu 2018. Mhm. position officielle bi Sénégal jël dafa wax ni. loi bu Sénégal tuddul sax góor jigéen homosexualité. Mm. daanuñu ko maanaam euh, euh, euh, terewuñ ko te daanuñu ko interdiction bi amul. Mhm. pénalisation bi amul. lii moom la gouvernement bu Sénégal wax te lii ay journaliste ngeen. Mhm. tàppeel Google léegi nga am rapport bi. Mhm. le comité des droits de l'homme des nations unies EPU bu nga xam ne Sénégal day dem ci concert des nations devant les nations unies ñu natt ko xayma ba xam recommandation yi ñu ko joxoon lan la ci def ak lu mu ci defagul. Mm-hmm. Sénégal terewul da ko sa dire moom laay wax léegi euh, sama turandoo sëñ Babacar nan ko. Mm-hmm. parlons peu et bien. Mm-hmm. Euh, moom et il a bien compris li may wax nii c'est-à-dire l'acte sexuel la loi bi tere. l'acte sexuel. tant que jàlluñ ci ñaari góor. wala xëñ na ñaari jigéen. loolu la loi bi tere. mais loi bi terewul ñaari góor ñu waroon a dem ni dañoo bëgg a sëy loi bi terewul lool parce que est-ce que xam nga ni loi bi kañ lañ ko jëloon 66. Mm-hmm. c'est la loi 65 66. 65 66 waaw. n'est-ce pas. waaw 1966. Mm-hmm. mais 1966 gay pride amul. déedéet boobu créé guñ ko ci <laughs> léegi naka la mën a une disposition moo xam pénal la moo xam leneen la. Mm-hmm. de la relevant de la loi mën a tere loo xam ne amul. peut-être aussi tout ce qui touche à l'acte res nañ ko jàppee noonu après daan bi moom mooy teguwaat sa kaw rek. du tout déedéet du tout. Hmm. du tout déggoo dama la boobu amagul sax. waaw non seulement neel benn. Hmm. beneen bi ci des tamit est-ce que xam nga ni le premier mariage homosexuel dans le monde xam nga fan kañ la am. 2001. Hmm. c'était aux Pays-Bas. Hollande waaw. Pays-Bas. 2001 euh, 66 sore na. phénomène yi amagul woon bi ñu jël la disposition là c'est-à-dire ñun li ñuy wax xam nañ ko. donc moo tax on parle même pas sax ñun de ay homosexualité on parle de LGBT c'est-à-dire c'est un phénomène boo xam ne c'est un phénomène nouveau amul woon ba ñuy jël cette disposition la kon cette loi là n'existe pas elle à compléter moo tax d'ailleurs ñu dugal ci yeneen éléments yoo xam ne amuloon ci disposition bi. mais est-ce que duñ leen nangul tey ñoom bu ñuy waxee l'acte contre nature. ñoom ils font allusion à ce que l'on appelle ay pratiques LGBT. que mu nekk góor ak guur wala mu nekk jigéen ak jigéen mënul nekk loolu. xam nga pourquoi mënul nekk loolu. Hmm. parce que nee naa la en fait ce phénomène là n'existait pas bi ñu jël cette loi là les phénomènes LGBT. mieux. Ah. ma waxaat la ci leneen sax mieux. xam nga les actes contre nature là l'homosexualité bi ñuy wax ni dañ ko considérer comme acte contre nature. en 66. Mm -hmm. est-ce que xam nga ni bi ñu koy déclassifier Sénégal participé na ci travaux yi. Mm-hmm. en 1990. waaw oh. le Sénégal faisait partie des 43 pays yi nga xam ne ñoo jël décision boobu 43 pays. Mm -hmm. avec l'OMS retirer l'homosexualité de la nouvelle classification internationale des maladies. mieux mm. ñun li ñuy wax ñoom ñoom duñ ko weddi ñun xam nañ li ñuy wax. alors cest mbir mi feneen la toll feneen la nekk donc loolu. dama la même su amoon même su amoon sax le peuple sañ nañ lii dañ ko bëgg a jëlee fii yóbbu ko fee. waaye waaye tolluwaay bi tolluwaay bi comme ni ñu koy waxee Sénégal tolloowul wala mënuñu ko méngaleeg beneen dëkk boo xamante ni homosexualité yem na fi benn dayo boo xamante ni jar na ñuy patam patamee benn loi di ko yóbbu assemblée national ngir di ci daan. te ñoom ñu ngi jàpp ni euh, ci benn pàcc sax dangeen di xotti euh, lii di ma ak ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di fi ñi fi dundee. xam nga ñaari yëf dafa am. Mm-hmm. benn bu benn bu njëkk bi mooy fan ci ginnaaw lañu gis en pleine Coupe d'Afrique ñu yéeg ci benn kaw euh, stade juma ah. benn mosquée. benn benn waaw benn benn mosquée. Mm-hmm. je pense fii Dakar. Mm-hmm. Karak Karak. loolu phénomène boobu kon mi ngi tam mi ngi nëbbu léegi nii. Mm-hmm. est-ce que xam nga ni en 2008. Mm-hmm. ay nit daje nañ fi phénomène boo xam ñun xamuñu ko woon ay góor di takkante. Mm-hmm. est-ce que xam nga ni en mille quinze 2015 décembre 2015 si mes souvenirs sont bons le 25 décembre 2015. ñu natt ba bàyyi bis guddi goo xam ni dafa daje guddi gàmmu daje aussi ak guddi googu Noël ñu dem tànn ville boo xam si ville religieuse la muy Kaolack njabootu ñaseen nekk fa. alors ah, ñu tànn fa di takkante. Mhm. et pourtant ñooñu ñooñu li ma la doon wax sànq nii pour nga xam ni effectivement c'est la réalité ñooñu dañ leen a parce que la loi terewul loolu. ñu leen libéré. saa suñ ci tegee loxo kenn ku def acte bu ni mel aussitôt dañ la libéré. nga delluwaat ci say activité non non bien sûr dañ lay libéré. mais l'on se souvient mhm. avec l'anniversaire des homosexuels. Mhm. exactement. ak yeneen ak yeneen yooyu dañ leen di libéré parce que loolu loi bi terewu ko. te ba tey nguur gi gis na ni dayoo góor jigéen toll fi nu ni mel ba ñu war fee dugal. loi toll na ko fi maa ngi lay renvoyé toll na ko fi. loolu le président sax waxal na ko boppam. Mm-hmm. biñ ko ci sonlelee ci xam nga ñoom ay problème de droits humains la ñuy wax. Mm-hmm. waaye waaye ay les questions la question des droits de de l'homme les questions des droits humains au Sénégal a mm-hmm. leen ko homosexuels yi anañu moom mi xam ne au Sénégal ba tax mu ci addu ci gémmiñam di ko wax. Hmm. ci ci ci ci ci ci ci ci yenn dayoo yi. est-ce que parle pas comme tous les Sénégalais que. moom moom moom il ne peut pas être assimilé à tous les Sénégalais c'est lui qui en fait. Euh, ah, hmm. hmm. am na yoo xam ne si bu amul yenn dayoo yi vraiment waru ko ci kii sax. loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp d'accord nañ ci. alors moom <coughs> nee na ay góor jigéen ñoo ngi fi. mais yi ma la wax nii fee yi. fee bi ci gën a remarquable. mooy bu kaw Kaolack bi. te loolu c'est 2015 nii rek soriwul. ça fait même pas 10 ans. Mhm. dañ leen a fekk l'inspect euh, euh, le commissaire de police euh, yàgg leen topp ba jàpp leen. Mhm. tiib ba mu leen demee la procureur def leen libéré parce que selon lui. Mhm. la terewul loolu. condamné wu ko. donc loolu débat amu ci. par contre su fekkoonte ni dañ leen a fekkoon ñuy def acte sexuel bi bu boobaa yoon man na dal seen kaw. mais le fait que dañuy mayante takk naa kii góor gi takk na kii nangam ñu takk seeni i jaljaleeg yooyu loolu. loi bi terewu ko. Mm. nest pas. Mm-hmm. donc loolu loolu vraiment preuve bu leer naa ñu ngi ci. alors beneen bi ci des tamit gis nañ aussi tous les émissaires du Sénégal bu ñu demee ci EPE e yi tamit à savoir Ismaïla Madior Fall. Mm. Euh, la délégation sénégalaise récemment 2018 tamit publiquement vidéo yi je pense ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. dañu wax ni Sénégal loi bi tuddul góor jigéen. Mm-hmm. te effectivement homosexualité nekkul ci le code pénal du Sénégal mm-hmm. nekku ci. Mm-hmm. nekku ci. mais su duñ ko def référence moom laa la wax sànq duñ jël acte contre nature def ko référence homosexualité. du tout acte contre nature rek firiwul loolu. <laughs> waaw mais xam nga xam nga ku ko mëntu jëf tamit bu boobaa li ngay jàmmarloo ci yoon. Mm-hmm. jugement bi ñuy indi mooy wàllum homosexualité. du du tout. du tout su fekkonte ni par exemple lii ma la wax homosexualité ñoom dégg nañ ko noonu. Mhm. dégg nañ ko te xam nga homosexualité rek it firiwul loolu. Mhm. LGBT G bi rek mooy homosexualité. waaw mais L bi mooy lesbianisme. Mhm. G bi mooy gay mooy homosexualité. par exemple intersexualité daf ciy dugg euh, bisexualité daf ciy duggu lesbian euh, lesbianisme daf ciy dugg. et cetera et cetera donc loolu c' est un ensemble d' boo xam ni. yëpp la ñu wax ni ce sont des faits nouveaux. ce sont des phénomènes phénomènes. nouveau phénomène yooyu nag il faudrait que ñu dugal ko suñu corpus juridique pour mën ko tere parce gis na ni ça prend de l'ampleur bu njëkk li xamoon mooy ay nit ku efféminé comme ni ko sëñ Babacar Sy waxoon mm-hmm. ay nit kuy fent ay kii yu yu demee noonu ci waxinam di fréquenter jigéen ñi mm-hmm. mais suñu demee ba góor góor mën a taxaw ni dañuy takkante ci biir Sénégal gi loolu moo lay wax ne la phénomène bi mi ngi jël ay ampleur te léeg-léeg nga tase ak ci fii ci filaay wooy yi géeje waaye aussi da la fexe nga xam ni dañuy génn léegi ci mbedd mi léegi di passer même à l'acte sexuel mhm. góor góor ak góor di ko def mhm. alors loolu il faut que ñu légiférer ci parce que moo tax ma tàmbalee ci sama kàddu ci réew mi réewu yoon la mhm. wala bokk loolu lañu wax kon il faudrait que yi nga xam ne dafay menacer la stabilité du pays li nga xam ne dafay menacer la cohésion nationale. Mhm. li nga xam ne dafay menacer suñuy valeur ak mhm. suñuy us. Mhm. mais loolu il faudrait que ñu légiférer ci. ba nga xamante ni dana mën a dana mën a peeg loolu. te loolu soo delloo ci constitution bi quand même ça a été inscrit. ñun dañu am suñu démb. dañu am loo xam ne mooy suñu identité il faudrait que loolu ñu jéem ko préserver n'est-ce pas mais mënuñu bàyyi ni réew mi bon vraiment euh, affaire yi daal ma ngay xew feneen ñun donc duñ ci mën a gàttan duñ ci mën a kii du tout d'autant plus que nañ ay exemple yu concret yu palpant yoo xam ne sii mi ngi dox ci biir réew mi. mais mais est-ce que di ngeen ci am yaakaar que ni dina am mujj ndax bu ñu xoolee mbir mi rax na politique wax dëgg yàlla bu ñu waxee rek dañ naan hmm. yéen fi mu nekk nii seen seen xeex bi utiliser ngeen ko ànd ak ñenn ñu féete ci l'opposition bi ba jural na tey bu ñu gisee nguur gi ci ci campagne yi ñu génn wala bokk élection yi. mu nër meelu mu nër meelu ndax ndax ñoom dañoo jàpp ne dañ leen a jaxasee nag jaxase ak askanu Sénégal jaxase wuñ leen wane ne président moo bañ a voté lii xeex góor jigéen ci réew mi xam nga xam nga xam nga ñun jaxase wuñu ak kenn ak kenn mm. maanaam amul kenn ku mën a indi wax joo xam ni mm-hmm. man wax naa ko ni ànd sàmm jikko yi dañuy xeex euh, mouvance présidentielle amul mm-hmm. amul kenn ku mën a wax officiellement yi tamit ci ànd sàmm jikko yi déclaration bu ñu def boo xam ne déclaration bu officielle la ñun ñoo ko bind. ñu wax ni ñun dañuy contre euh, mouvance présidentielle bi wala dañuy jàppale opposition ñun jàppale wuñ opposition jàppale wuñu mouvance présidentielle contre ñu mouvance présidentielle contre ñu opposition. ñoom fee lañu wax de des euh, fee euh, atamu ma wax la rek la la la preuve <laughs> la preuve ànd sàmm jikko yi mu ni mu bindoo. Mhm. am na ci ay membres yoo xam ne bokk ci. association ak structure yi composé ànd sàmm jikko yi. Mhm. te ñoo ci mouvance présidentielle bi. soxlawul ma leen di lim nii waaye lii si amul woon ñoom danañ ko kii. mën naa la ci limal par exemple lu mel ni UFC. Mhm. mi ngi ci mouvance présidentielle bi te mi ngi ci ànd sàmm jikko yi. Mhm. kooku naka la ñuy man mu xam ne ñun dañuy xeex mouvance présidentielle ba noppi mu bokk foofu ñëw di ñu jàppale. Mhm. mu nekk ñun nekkuñu ci dynamique boobu. ak ñeneen aussi laa la wax de. ci suñu organisation interne. bari na ay nit yoo xam ne ce sont des coordonnateurs. départementaux yu ànd sàmm jikko ay département ak commune yi mu ëmb. tey ci mouvance présidentielle bi la appartenance politique la rek. mais loolu laa lay wax moo tax xam nga ñooñu bu fekkonte ne xam na ni li ma li ma bëgg a wax c'est c'est très clair. su fekkonte ne xam na ni ñun dañoo am benn gis-gis ci. di xeex mouvance présidentielle bi ñoom duñ fa bokk ba pare di ànd ak ñun liggéey boobu mënul nekk. donc mais parlons du déroulement. déroulement par rapport comme genre agenda noonu laa ko mën a duppee. rassemblement bi ngeen mujjee def jege woon na lool ñu dugg ci wàllum campagne électorale te loolu également benn impact def na ko ci lu ñor wàllum résultat yi aussi. waa mii xam nga loolu nag. xam nga loolu. nit ñi mënuñu ni <laughs> Sénégal. Hmm. Sénégalais yi ñoo ko moom. Mm-hmm. d'accord nañ Sénégalais yi à travers maintenant ci seen système bi ñu instauré ñoom ñooy tànn ci ñetti institution yi nga xam ne moom la ñu tëral ñu yor ko. Mhm. benn bi nga xam ni moom moo ci mën naa ne bu ci am solo la muy l' exécutif te ki ko incarné muy le président de la république. Ah. sénégalais yi ñoo koy tànn. Mhm. kon moom moomu askanu Sénégal la war a nekkal serviteur la. ñoom ñooy tànn tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci beneen institution bi muy l' institution législative mhm. wala boog parlementaire n'est-ce pas. ñaar ñi nga xam ne si lenn lu ci nekk jëmmal nañ ko ngir ñu servir le peuple sénégalais. Mhm. askan woowu su fekkente ni nag dafa am lu mu bëgg. Mhm. nga dem ci constitution bi ñu wax la ni le peuple sénégalais souverain maanaam comme Sénégal su fekkente ni am réew la kenn ko moom muy askan wi su fekkente ni ab dëkk la kenn ko moom muy askan wi su fekkente ni kër la mhm. kenn ma ko moom muy askan wi. askan woowu nag su fekkee dafa bëgg dara. waaw jël mbindaanam ma mu euh, jël mu war koo doon am mbindaanam di ko mm-hmm. liggéeyal mu ne ah. ko damaa bëgg nga fóotal waa kër gi wala boog am dépense nga nii demal nga nduggi pour ñëw togg parce que njaboot gi ñi sant Québec ñas ak nangam nangam mm-hmm. dañuy dañuy gaaw a xiif te dañuy jooy <laughs> waaw léegi moom mbindaan moomu nga xam ne boroom kër gee ko jël muy mm-hmm. peuple bi jox ko mu nduggi waaye mu teggee ca marché ba balaa lijjanti lii ñu ko sant ci këram gii. Mm-hmm. day dem lijjanti dëkkandoo yi ñoom seeni soxla ba noppi. Mm-hmm. loolu nga bëgg léegi nag du ñu informer borom kër gi tamit ni ko xoolal lii am. Mm-hmm. mbindaan mi tamit xanaa bu amee dëj nag doo ko toggaloo añ jour boobu wala nga fóotloo ko jour boobu. ana dëj ba. élection locale yi. mënees na ko jàppee noonu man la déggoo nee naa la 2020 lañ commencé woon sa processus la. waaw ñun xaaruñu ay élection yu am 2020. boobu décidé guñ élection locale yi kañ lay doon ak euh, du ko doon ñun ci processus lañ nekkoon boo xam ne li ko jiitu mooy dañoo wër Sénégal d'abord ba pare. Mhm. bi ñu waree Sénégal ba nga xam ne xam nañ ni lii du mbirum Ababacar Mbow du mbirum ànd sàmm ji koy tukkuwoon. Mhm. malgré que kuréel bu yaatoo yaatu la. Mhm. waaye mbirum sénégalais yépp la. d'ailleurs am na xalifa boo xam ne biñ ci waxtaanee loolu lool ñu wax. dañ cee wax ak moom ba pare mu posé ñu ay questions ñu répondre ko mu laaj ñu euh, ñu jox ko mu càmbar ko waaye lii du mbir mu ñuy waxtaanee ci ab salon Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. da ngeen di dem ci Sénégalais yëpp ngeen waxtaan ci ak ñoom ba pare ba xam luy seen réaction ak nuñ ko gisee. loolu moo waral on a en fait le temps. def le tour du Sénégal. bi ko defee ba pare loolu moo doon première étape bi ndax mbiru askan la ñëpp a ci am cër ñëpp nag. ci lañ jóge nag soog a lancé pétition soo ko wootee manifestation yi ñu woote. ngir ni leen nag nañu tëgg loi bi parce que askan wi yëpp gis ni lii ñoom bëgguñu ko. donc loolu mbiru askan la kon bu fekkee askan wi ñoo ko bëgg demandé ko ñoom ñu jaayi doole expliqué naa ko soxlu ma ci dellusiwaat. Ah. ñu jalgati yoon. Mm-hmm. bloqué ko. Mm-hmm. ba noppi naan président lii la ci wax. Mm-hmm. président kat joxe na position am gis nañ ñenn ñi Ousmane Sonko ba mu génnee barki Dembo Ndiaye ne bis bu ma faloo dinaa euh, dinaa leen yombalal yéen seen xeex bi homosexualité du fi am moom ay waxam la ñu gën a gëm ka bosu président Macky Sall parce que président ñaari wax la ci wax da ci waxul benn wax ah un double langage la ciy tenir président <clears throat> xam nga dafa am loo xam ne c'est très intéressant mm-hmm. souvent am na ñu koy faral di décrier sax ci seen nattangoo yi nekk ci wàllu journalisme mm-hmm. des journalistes d'investigation nga xam ni mbir ñoo koy saytul seen bopp topp ko mm-hmm. gis nga boo toppee le président sur ce discours la da ngay gis ni il tient un double discours boo waxee déjà dafa lay wax ni la actuellement pareeguñu ku parewul tey est-ce que demain da nga pareem déet nit ki mën na ci xalaat lu ne te li muy wax it le peuple sénégalais ñun souverain donc li muy wax ñun daf ñu intéressé il faut que ñu déglu ko. Hmm. c'est-à-dire ñun dañuy peuple boo xam ne parewuñ ci mbir mi tey parewuñ ci ëllëg. moom bu nee parewul naan affaire bi question de société la. Hmm. kenn ku ci nekk da nga koy jëlee ak ni nga mën a jëlee. Ah. mais avec la sensibilisation avec les nangam ak nangam. Hmm. ay évolution mais ñooy attention. mais ku ci mm. nekk loolu toujours bu koy wax ci français la koy wax. Mm. Ah. mais bu doon wolof nag leneen lay wax moom. nee na moom tant que moo ngi fi ngóor jigéen moom kenn ci ne sa gouvernance nga mën a wax mais moom laa lay wax sa à dire Sénégal pareegul tant moom mu ngi fi. pare affaire bi mhm. gis nga loolu. Mhm. waaw vraiment damay bañ a wax waxin wu ma warut a wax mais <laughs> loolu du ay wax. Mhm. réew mi nekkuñu ci monarchie. ba kaddu kaddu président mooy lan. mooy njiitu réew. et après la loi moo ko tiim tiim kàddoom tiim ñëpp. sénégalais yee ko fa loi la ñuy wax. Mm-hmm. on parle de, de loi. Mm-hmm. alors il faut que les gens sérieux aussi. Mm mm-hmm. dire le président kàddoom tënkuñu. bu fekkonte ne kàddoom dama fi tënk. bi ñu demee ñu saaga yonent bi fee mu dem ci caricature de le marché kon loolu yow engagé na la. ak ay jéegoom du tout. engagé wul l'écrasante majorité de sénégalais ba ci chrétiens yi sax ñu ci bari engagé wu leen sañ naan sax ni pratiquement engagé wu ci kenn. te ñun lañ saaga suñu yonent mu mm. dem di di marché Charlie. Charlie Hebdo kon bul ni président acte mi posé wax yu ma dafa engagé le peuple engagé wuñu mm. président ñaata yoon la wax génn ci. dama la bu fekkonte ni al amin la sax nit ku wér la koo xam ne lu mu wax noonu la demee kenn du ko dindi sax kàddoom tënkuñu parce que nekkuñu ci monarchie. il faudrait qu'on soit d'accord ci loolu. ñun ci république lañ nekk. la république nag ay loi la ñuy jël. moom par exemple bi mu ñëwee. ñu ni problème mu càccum jur gi daal mi ngi jël ay ampleur mhm. mais dañ ko jëlee ci pénalisation yóbbu ko criminalisation mais néew rek tant que maa ngi fi daal fi mu ne ko fi sàccati léegi danañ la ki wala càcc gi sax danaa ci def ay moyens ba dootul am dañ koy régler par loi mhm. problème mu bi bi mu amee te ñun ñëpp ànd ci laa wax parce que donte nag loi bi euh, vraiment am na ay ay ay ay ay ay mbir yu doy waar yu ci paramètres yu ñu ci war a mhm. defaat e-, effectivement ñun ñëpp nous sommes en sursis mm. su dem benn mere léegi bu ko neexee nii nangam te te boo demee bala nga wax yow dañ lay yóbbu mandat dépôt ba pare. waaw ah, ndax tëggin bi des na. Ah. waaw tëggin bi dafa dafa des. Mhm. donc et pourtant la disposition a toujours existé au Sénégal mais terewul bi ay nit jógee sàkk ko mais dañ ko jëlee ci pénalisation yóbbu ko feneen. Mhm. kon loolu véritablement man jàpp naa ni du du du lay. kon du kàddoom la ñuy Séné moo tënk sénégalais yi cest à loolu c'est important ñu wax ko bu fekkente ni moom dañ koo gëm loolu. moom loolu na ko dindi ci boppam. mais majorité ñi koy wax aussi non du problème déggoo li ma wax. waaw nañ dis dissoudre constitution bi. Ah, mais malheureusement nag looloo fi am ak règlement yi. waaw am tamit. attends gis nga suñu Babacar. Hmm. réew mi gis nga moo tax yërëm naa sama bopp yërëm waa réew mi waaye yërëm naa réew mi aussi. Hmm. lu tax loolu. président mm. d'autres son passés avant lui mm-hmm. Senghor est passé mm-hmm. Diouf est passé mm-hmm. Wade aussi est passé moom aussi day jàll waaw du seeni kàddu moo tënk askan wi constitution bi waxul loolu réew mi li ko tënk ay loi la kon boo amee question boo xam ni dafa jóg askan wi bëgg ko la mu ca laaj moom moo ci waroon a jiitu fi nekk nii parce que en principe moom mooy le serviteur du peuple sénégalais moom warut a fee nekk ci ay euh, position partisane wala ay euh, clanique. Mm-hmm. kii mooy sama xeet wala kii mooy sama askan. Mm-hmm. moom dafa war a nekk au-dessus de la menace c'est-à-dire sénégalais yëpp la war a tiim. Mm-hmm. sénégalais yëpp la war a njaboote. Euh, donte am na ko ko jege loolu ni ma bul waxati loolu njaboote gi ma man ko si ñëpp la war a njaboote. comme président foofu la war a nekk mais du kàddoom nag quand même parce que réew mi rek euh, euh, ci ci yoon la nekk. Mm-hmm. du kàddoom moom moo tënk askan wi loi moo ñu tënk. Mm-hmm. moom moom loi moo ko tënk. président li mu mën a produire xam nga ci disposition hiérarchie des normes juridiques yooyu xam nga lan la. Mm-hmm. décret. waaw décret règlement la. yaa la loi simple. loolu wax loi ordinaire. assemblée député yi ñoo ko mën a def. loi organique kazalik. loi constitutionnelle. am na lu ci député yi mën a def askan wi moom moo ko mën a kii ndax la constitution loolu cëru askan wi la. te dañ koy waxtaanee luñ fay tënk. absolument. Mhm. loi yooyu nag moo tënk ñëpp moo tënk askan wi moo tënk tey euh, réew mi. Mhm. ñu euh, root ci démb. Mhm. waaye pour mën a jëm ci ëllëg. kon bu fekkee dafa am question yoo xam ne dafa yitteel askan wi. du kàddu président moo koy tranché. du dañ ko dañ ciy légiférer. loi ngay jël. ba mu leer la ni ki ko dynamique bi ñu nekkoon ci réewum yoon la. ci lañ nekk ba tey mbir la mu ñëpp commencé bokk ba noppi te ñu yoonal ko. Mhm. république la certes waaye ah. réewum yoon la. nanu ko yoonal. ngir loolu man ci eh, man ko régler définitivement comme mhm. ni ñu régler yeneen question yoo xam ne si yu yu bëree bëri la mhm. waaye c'est extraordinaire question bu toll nii un agenda international ñoom ñu jël ci ay positions yoo xam ne xam nañ ko. yamuñu ci loolu ñu tàmbali di ci doxal un agenda boo xam ne ci biir réew mi xam nañ ko. Mhm. ba noppi taxaw na noo tant que maa ngi fi tant mi ngi fi en principe. Mhm. Euh, bu ko mën sax dugg ci loolu. Mhm. mais bu constitution bu fekkente ne dafa wax ni. nul n'a la droit de faire deux mandats consécutifs. xam nga préciser wu ñëpp mandat bu deux ans wala trois ans wala nangam. Mm-hmm. deux mandats rek la ñu wax. Mm-hmm. kon mandat bu sept ans ak bu cinq ans yëpp en tout cas bu fekkee tegloo na rek c' est ce qu'on appelle deux mandats consécutifs. Mm-hmm. mandat bu dix ans ak bu trois ans it bu tegloo yi tamit ce sont deux mandats consécutifs. loolu la constitution bi wax ni kenn amul droit def ko soo xasee def ñaari mandat yu tegloo. da ngay noppi ci. xanaa nga dellusiwaat fekk na am na mandat bu fi doxaat nga nga dégg dellusiwaat. mais ñaar yooyu. loolu question boobu bi mu ñëwee fekk ko fi ak li xewoon 2011 ak bakkan yi ci kii dafa ñëw ni loolu nañ ko régler définitivement lan moo tax ñëwul rek daan ni léegi sama kàddu doy na ci da ko dugal ci disposition kii bi loolu dafa am solo sénégalais yëpp rafetlu ko ñëpp saluer ko n'est-ce pas mm. mais on demande pas mieux mbirum loi la dañ koy loi mais du kàddoom rek moom moo ñu ci mais fii ñu war a statuer ak ñu war a yi fii xam nga du ñu benn loi bi ni mel bu ñu ko war a statuer au minimum assemblée nationale la war a dem. bien sûr majorité moo koy voté. su ko defee askan bi ne waaw voilà li dem na. mais nag dafa fekk ne assemblée boobu ñu war ko voté boobu war ko voté moom da ci am benn part boo xam ne mu ëpp doole lool foofu laay waxee. c'est-à-dire loolu am maanaam mën na accepté que ne Macky Sall bu ne ne loolu tant mu ngi fi mooy moom xam na bu baax a baax que ne majorité bi mu am assemblée nationale. maanaam du jéggi loi bi ni mel di loo xam ne arrangé wul ñenn ci askan bi est-ce lay waxee. bon bon j'ai pas majorité bi nekk assemblée nationale. buy statuer tey. Hmm. xam nga dafa naan lii moom la askan bi bëgg mu ànd ci walla mu ñàkk ci ànd. majorité bi ku àndal Macky Sall la àndal donc tey ñu daganal góor jigéen mënees na jàpp ne majorité bi moo koy def loolu ci turu Macky Sall lañ ko jàppee parce que dañu naan toujours li ñu fi voté ba assemblée Macky la parce que député dañ ne hmm. mais tey bu fekkente ne bëggu ko loolu du mën a àntu. bu bëggul loi bi. bu ko bëggul loi bi jàll du mën a ànd. du mën a ànd ndax maanaam majorité bi majorité bi ñooy voté lii jàll. non non maanaam que tey bu fekkente ni Macky Sall wax na ne. Hmm. tant que maa ngi fi ça veut dire que loolu du mën a am parce que majorité bi mu assemblée nationale li muy statuer mooy la nga xam ne moom moo ko arrangé foofu laay waxee ak lu mënti xew tamit. bon man j'avoue ko j'ai pas très bien mhm. saisi. la mhm. euh, xam naa ne. wala fu kebe kebe sama sama sama xamee neexul wala peut-être mais en tout cas. <coughs> changement bu mënti am. bu waree jaar assemblée nationale. Mm. majorité Macky Sall moo koy def. loolu am na. waa léegi moo tax may de même bu fekkente ni changement day am tey Macky Sall li mu ci bëgg noonu lay demee kon tey nañ jàpp ne moom buy wax ne. pareegul pour loolu am fi saabu veut dire que ma majorité du def lu dul lu mu ko sant te la mu koy sant mooy droit bi fi mel nañ ko bàyyi waale. waaw loolu xam nga beneen fànn lay doon. fi mu nekk nii maanaam pare ñu fi mu nekk nii pour euh, parce que ñett dafa am ñetti yëf yoo xam ne dafa am te bokkuñu aussi la dépénalisation. Hmm? Mhm. waaw pénalisation. Mhm. Hmm? benn bokku ci. Mhm. sa sa sa morom. xam nga ak la légalisation. pénaliser dara. Mhm. mooy ñu am benn disposition. Mhm. boo xam ni dañ ni kat mbir sàngam bi nañ ko wax wax mooy lan wax ni ci circonstance wala lii ku ko def lii mooy tege sa kaw. Mhm. bu fekkente ni am nañ ci firnde nangam ak nangam ak nangam et cetera. loolu da nga pénaliser bu fekkee yegg na ci benn dayo bi da nga criminaliser. criminaliser la légalisation. <coughs> à peu dana dikk foofu mooy ci mbir mi loolu lay wax moom toujours ni fii mi ngi fi ñun duñ ko légaliser. fii ak mi ngi fi. Mm-hmm. légalisation moom mooy njobaxtal gi. kenn du ko dépénaliser. ah waaw. sa ñaar yëpp lay jëfandikoo. Mm-hmm. duñ ko légaliser duñ ko dépénaliser. Mm-hmm. dépénaliser mooy disposition bu am ñu war ko approché. ñu war ko dindi. xam nga loolu beneen mbir la. waaw ak lan légaliser ko loolu moom mooy summam bi mooy li ci gën a kawe. ñu ñëw ñu ni donc disposition bi légaliser nañ gis nga man dama lay wax sëñ la. légalisation boobu sax déjà am na. légalisation bi am na ba pare. si foofu fan ngeen ko teg. exactement ci lay ñëw léegi nii. Mhm. légalisation bu am na. Mhm. gis nga cette question là. Mhm. Euh, question bu doy la ñu koy def ci tur askan bi di ko defal askan bi ba noppi tamit di tuur lëndëm askan bi. Sénégal fii. xam nga <coughs> wax naa la sànq ni la réew mi réew mi yoon la ala kulli xaal lu mën a xew. Mhm. mbir yi bu delloo dañuy delluwaat ci yoon xool ba xam lan la ci yoon wax rek lan la ci yoon tëral. d'accord te yoon boobu bu ñu koy natt tamit dañuy seet ay nattukaay parce que dañoo ëppante doole. Mhm. disposition bi ñuy wax ni ñun. l' article 319 du code pénal le code pénal rek ci résumé boobu. Mhm. loi ordinaire la. d' nañ. d' accord loi ordinaire mi ngi nii. premier étage la wala mooy rez bi. premier étage mooy loi organique loi organique moo ko doole kon. Mhm. n'est-ce mhm. trop euh, euh, beneen bi ci des loi constitutionnelle. Mhm. la constitution moo leen ëpp doole. mooy deuxième étage. waaye taax mi nag dafa am troisième étage. mooy des lois supranationales. les lois supranationales moo tiim yooyu yëpp nag. alors avant may àgg ci loi supranationale yi naa ñëw d' ci constitution bi d' abord bu pare. la constitution sénégalaise. dafa am lu am solo wax. dafa wax ñaari disposition benn bi article vingt cinq alinéa trois benn bi ci article quatre vingt dix huit bu constitution bi article quatre vingt dix huit bu constitution lan la wax yi suñu demetee assemblée nationale ba voté seen loi ba ñu promulgué ko. Mhm. ba publié ko au journal officiel ba mu tàmbali dox ñu appliqué ko décret bi génn. Mhm. gis nga bu boobaa loi boobu di dox ci sénégalais yi. moo xam loi bi ban nature la am. bu ñu jëlatee benn délégation sénégalaise yoo xam ni euh, ay fonctionnaire lañu lenn ci ministère de la de de de, de des affaires étrangères justice des quelques éléments présidence et cetera euh, direction des droits de, de l'homme ñu mm-hmm. boole leen. Mm-hmm. ñu génn waxtaan ak ci niveau Afrique. Mm-hmm. wala ñu waxtaan ci niveau sous-région bi. wala ñu waxtaan ci niveau àdduna. sur le plan international. Mm-hmm. su ñu waxtaanee foofu ba siñente ak ñañu siñenteel. Mm-hmm. loolu ñu siñente mu ëpp doole loi yi nekkoon ci biir Sénégal c'est une disposition de la constitution. Mm-hmm. kon la ñuy def bitim réew moom nga jàpp ne <laughs> dafa suul daanaka li fi nekk. Ah, li ma la wax nii lu leer la <laughs> la ñu ci bitim réew. moo ëpp doole loi yi mu fekk ci biir réew mi. constitution bi dafa wax ne. les traités et conventions internationaux wow. régulièrement signés et ratifiés on une autorité supérieure à celle des lois dès leur publication sous réserve que l'autre partie aussi applique euh, Donc, déjà engagement. ça constitue un frein <laughs> mais, bien sûr moo tax man la légalisation bi dañuy wax ni mais jàll na bu yàgg mm-hmm. parce que lee daf ko ëpp doole mi ngi mel ni misaal mi may faral di joxe muy misaal mu terre à terre mooy tey yow Aïda mm-hmm. soo invité woon le président de la République. Mmh. Inviter le gouverneur de Dakar. Mmh. Inviter le de Dakar. Mm-hmm. Inviter le sous-préfet du Dakar Plateau. Mm-hmm. léegi ñoom ñu war a ñëw sa plateau bi ultimatum. Mm-hmm. mais benn chaise rek a fi nekk. yow donc yàlla leen recevoir deux chaises a fi nekk yow ko toog ci benn bi benn chaise moo ci nekk. kan mooy toog ci chaise bi. président. c' est évident. mais sous préfet dafa toog. léegi ñun ñoo ngi wax problème bi sous préfet mooy toog ci kii bi ñun loi problème sous préfet la sous mais est du ñu nekk tam bu ñu bu ñu ko naree analyser fu est ce que tolluñu ci dans la contradiction kon lan mooy may tey Sénégal muy am doole bu toll ni yenn jëf yi bu ko fi gisee dem sax bu mën a daan nit à l' exemple de ce qui s' est passé niveau de Karak. ak kooku ñu daan la toll ci juróomi atu kaso. non moom laa la wax daaneel la loi on l' applique. Mm-hmm. d' ailleurs am na benn avocat bu xarañ. waaw boo xam dafa ni yëf yi nit ñee fi nekk di coow ni rek. mais man si j'ai kenn du ko condamné ci mbir mi. et il a raison parce que loi supranationale yi lay invoqué. te mm-hmm. c'est vrai donc loolu c'est très important nit ñi bàyyi ko xel. Mm-hmm. beneen disposition boobu xam nga bi leer na. Mm-hmm. l'article quatre vingt de la constitution. Ah. beneen bi ci des. Ah. Ah. la même constitution du Sénégal. donc article 98 bi moom moo conféré kon des lois supranationales ay lois yu tiim lois yu mu fekkoon ci biir réew mi mais boo demee ci l'article 25 alinéa 3 bu constitution bi. dafa am leneen lu mu wax mooy les droits d'autrui àq ak yelleefu ñeneen ñi mhm. wala àq ak yelleefu keneen ki wala ki ci des mhm. àq ak yelleefu keneen kooku mooy kan dafa wax ni nii la ko libalee mhm. tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements d'accomplir ses et de respecter les droits d'autrui autrui c'est qui ñun sénégalais yépp tey soo nu jëloon 17 millions de sénégalais man su ma xisee taxaw ni man citoyen sénégalais. waaw yéen ñi des yéen a ngi ci biir autrui. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. mooy àq ak yelleefu ala xam kon ki ci des. Mm-hmm. alors ki ci des kooku. kooku moom moom mën na doon imam bi. waaw mën na doon ab sëriñ daara. mën na doon un sportif de haut niveau. moo xam athlétisme lay def. moo xam euh, tennis lay def moo xam scrabble lay def moo xam moo xam moo xam moo xam. mën na doon un homme de lettres. Mm-hmm. mën na doon un artiste. Mm-hmm. mën na doon keneen ak keneen mën na doon jigéen. Mm-hmm. mën na doon góor mën na doon mag mën na doon ndaw. waaw mën na doon góor jigéen aussi. ah donc loolu kumpa bu nekk ci biir. mais bien sûr et pourtant c'est inscrit la constitution. te constitution bi moo tiimaat lii ma lay wax nii. moom loi supranationale yi moo ko tiim waaye moom moo tiimaat yeneen loi yi ma lay wax moo tax gis nga cette question la. ñoom ñoom ñi xam nañ ñun li ñu wax lan la. moo tax toujours mm-hmm. li ñuy attaqué lan la. Mm-hmm. gars yi dañuy politique danaa ci ñëw léegi nii. Mm-hmm. wala gars yi ay jihadiste lañu wala gars yi. Euh, am na ñuy wax sax man góor jigéen yi ñoo ñuy financé. Ah, maanaam sax yooyu rek lañ mën a wax quoi mais mënuñu ñu opposer des arguments. parce que parce que lii lañ jàpp ni mooy gën a promouvoir wàllum góor jigéen ndax ci at yi ñu weesu ñu ko dégg. sa ànd saam bi koy ba mu jugee euh, ñoom la ñu jàpp ni ñoo amplifié mbir mi ba ki xamul woon sax xam nga loolu rappelé ma encore sa question bi ngeen wax ci ñiy tuumal politique ak euh, li li wane ni ñu dañuy politique te vraiment jotewuñu loolu. Mm-hmm. rappelé ma ko mais fi nga toll nii mm-hmm. wax naa la ni la. Mm. en 2008 bu la neexee tàppeel sa sa sa sa Google. Mm-hmm. mariage gay bi amoon fii Mbaaw boobu ànd sama jikko yi créé wuñ ko existé wul sax mm-hmm. en 2015 le 25 mille quinze bi góor jigéen ni dajee Kaolack di takkante boobu ànd sama jikko yi existé wul d'ailleurs loolu sax moo tax ñu créé collectif bi. Mm-hmm. bi mu amee ci lañ ko créé le 19 janvier 2000 2016. Euh, euh, mhm. diggante bi waxtaan yi fi amoon ak et cetera. pour mhm. constituer le premier collectif mooy le collectif non à l'homosexualité au Sénégal. kon lii ma la wax ni ay fee la. Mhm. te moo précédé collectif bi di juddu. muy benn élément deuxième élément wax naa la loo xam ni lu am solo la. nit ñi déglu nit ñi ay borom xel lañu. sëñ Babacar Sy Mansour bi muy àddu ci lii publiquement. boobu ànd sàmm jikko yi. tàmbaleegul yëkkatiwul lii pour def ci euh, def ci def ci tournée ak yooyu. Hmm. interpeller l'état ni leen taxaw leen ci est-ce que kon dañoo mën a reprocher sëñ Babacar Sy Mansour day participer ci euh, kii bi gis nga wax yooyu ñi koy wax ñëpp ay nit ñi xamul lañu ou bien ils sont de mauvaise foi. Hmm. ñi xamul nag lay expliquer gis nga bu dee loolu rek la yàlla moo njëkk a bëgg ak mbon tasaaroo kon. Hmm. ubbil alxuraan tàmbal. ak mbon da ko ci gis ñu koy nettali. di ko leeral. di ko xam xamle ñaata yoon yàlla li mu tudd iblis li mu tudd seytaane ci alxuraan tudd ko ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñu xamal kan la di ñu xamal sa ses stratégies di ñu xamal son objectif di ñu xamal ak ak mbonam mm-hmm. ak i jaar-jaar mm-hmm. ñaata yoon la ñu wax ci ay génération ay nit ñu defoon yu bon di ca dund ba seen mujj euh, mujj ci lu bon mm-hmm. lu bon boo ko xamul doo ko moytu am déet mm. li nga xamul ci lu bon d'ailleurs bu doon loolu yonent bi pourquoi muy wax ni man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi bu ngeen gisee lu bon lu bon il faut nit ñi buñ ko gisee dañ ko war a dénoncer dindi ko. Mm. ñun mënuñu ñu reprocher ni dañuy participer ci loolu. mais composant bi risqué. Mm-hmm. mais composant bi tam problème la. composant c'est-à-dire. ñi koy ñi ñi koy xeex. composant bi ñan maanaam personne yi ñuy jàpp ne ñoo ko nekk sànq yaa ngi ma fi yaa ngi ma fi cité ay nit ñoo xam ne ñii ay partisans lañ. maanaam ci politique ñan la ci la yaa yaa ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi bokk mouvance présidentielle ñi bokkee voilà donc composant boobu noonu ngeen am parfois nit ñi ci dañuy duut ab baaraam ne véritablement est-ce que ce sont des personnes yoo xam ne l'engagement c'est pour faire disparaître homosexualité wala pour combattre un président non c'est-à-dire question boobu mënul pertinente ah. nee naa la bu fekkoonte ni euh, question bu pertinente lay doon hmm. euh, kon du ñu ànd ak nit ñu bokk ci benn bokk yaakaar mhm. di di dérouler ci agenda mais ñi ci gën a fës ñëpp opposition bi lañu bokk. Euh, non attends du du tout du tout. kon ba nga ànd hmm. kenn gënu ma cee fees man mi di wax hmm. hmm. maa koy présider maa ko coordonné bokkuma pouvoir bokkuma opposition moom vraiment c'est des contre nit ñi gis ñëpp attaqué envers le topp ci man. waaw bokkul mouvance présidentielle bokkul bokkul opposition. soyons sérieux quand même hmm. loolu noonu la demee terewul nag ñun am na ñu nekk ci suñu biir ni ma la ko waxee. waaw ñoo xam ne ñii ay activistes la ñu xam nañ leen. du dëgg hmm. ñii ñoo ngi ci opposition bi ñii ñoo ngi ci majorité présidentielle bi. ku mais ñun gis nga am na ci ñoo xam ne mosuñu def politique aussi. Hmm. ñooñu ñëpp nag c'est ça le Sénégal. ñun dañoo woote ci question lan question wu valeur. boo ne mbirum valeur nag. Mhm. wax dëgg yàlla sañatu cee génne kenn. Mhm. parce que mbirum valeur ñëpp la yitteel concerne mhm. dafa yitteel église bi. yitteel l'islam bi yitteel société civile bi. yitteel bois bi mais yitteel sénégalais yëpp. amuñu droit ñun woote ci ni penc mi dañoo bëgg suñu héritage héritage boobu du man rek maa ko jot. mais héritage boobu du yow rek yaa ko jot. héritage bi héritage commun la. puisque héritage commun la nag kon suñ ko waree sàmm mais suñ Babacar su ma jàppee amoo ci cër. Ah. foofu la ak tooñ nag tàmbali sàmmatuma jikko du tout ñëpp ci am cër moo tax très souvent damay wax ni mm-hmm. gis nga même ñi nga xam ne ñun d'accorduñ ak ñun mm-hmm. ñun toujours dañu leen di jox cër te dañuy woote ci nañ leen di jox cër aussi parce que ils ont le droit bañ a d'accord ak ñun te ñooñu dañ leen war a respecter aussi respecter leen seen euh, attitude boobu respecter leen seen prise de position boobu dañ ci am droit loolu kay mooy fekk si saa su ne ñu ne mooy fekk si question bi ñu naan yéen da ngeen di politique non non non non man je ne sais pas man maa. dindi ko mooy jafe ma wax lu non c'est-à-dire jéem ko dindi. du loolu ci ci ci wala excuse wala explication yi nga xam ne day déterminer le mm-hmm. contraire. Mm-hmm. yàlla non non non yàlla. Mm. yàlla muccul. Mm-hmm. nit ñi ku mu neex forger sa xalaat yu la neex waxe ko nu la neex. loolu nit ñi libre nañ ci véritablement. les commentaires sont libres. loolu li ñuy wax inventé wu ñu ko de Imaam. inventé wu ñu ko de cest wax un cas concret. non defuñu politique. maanaam ñoom ci seen i kàddu la ñoom ni ñuy ñoom ñu ñuy jàppee ànd sàmm jikko yi ba ñu ci seen xeex benn ci président de la république benn ci yenn député ci assemblée nationale ñenn ci ci mouvance waaw ci mouvance présidentielle foofu mhm. foofu boo xoolee par exemple mhm. ñun wu ñu président amuñu problème ak président aussi mhm. loolu je le dis solennellement amuñu benn jafe-jafe ak président de la république d'ailleurs man dama jàpp sax ni lii ñuy def moom moom la ñuy jàppale ndax c'est lui qui préside nag actuellement les destinées de ce pays là. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag su fekkente ni am na loo xam ne mi ngi fi tàmbalee dugg. Mm-hmm. te man ma wax ak ñu bari am ñenn ñu ko jege ñoo xam si dañ naan ma ñun xamewuñu woon ko nii te je pense que président xamewu ko nii. di ma jéem a jox sax ay explication wala boog ay début d'explication. man si ma dis que ni kon lii ñuy dox moom lañ koy doxal moom moom moom en réalité su fekkente ni comprendre. beneen bi ci à proprement parler la proposition de loi c'est vrai que ni euh, ki ko porté en principal. waaw il est de l'opposition muy Mamadou Lamine Diallo. Mhm. mais avec douze autres députés ñuy treize en somme. ñan na mhm. te treize députés yooyu am na ñu ci bokk benn bokk yaakaar. Mhm. Abdoulaye Wilane bu parti socialiste mooy mooy porte parole bu euh, parti socialiste. mais bokk ci ñi porté porté porté proposition de loi bi. Aliou Souaré. Hmm. moom ak mu jaañ fajaan ñoo bokk parti am déet. Mhm. jaañ fadaam du mi ngi ci kii bi. mooy mooy son patron. Mhm. te moom bokk na ci ñi porte kii bi te bokk na ci ñi ci gën a taxaw aussi. Mhm. participer ci ci production bi ci bind bi et cetera et cetera. parce que moom à peu loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy spécialité bi. n'est-ce pas waaw. kon kooku mënuñu ñu wax nit ni ñun dañoo dañoo dañoo jéng déedéet. te li jiitu loolu. xam nga jox naa la tegtal ci ñun vraiment loolu nekkuñu ci. mais nit ñi nag lu leen neex mën nañ ko wax gis nga bu leen neexee sax. bu leen neexee ñu ni sax waa an sama jikko yi ñi ko jiite góor ñi wasin nañ biig c'est-à-dire nit ñi bu leen neexee quoi c'est-à-dire ñun géré wuñ loolu. ndax tënyeef bu nag ndax jàpp ngeen géré wuñ dañ ciy dellu waat mais daanaka moo ci gën a fës mooy euh, déroulement bi agenda ñoom lañ ko jàppee. Euh, euh, barki Demba Ndiaye Seydi sama mi doon wax rek presque foofu la laal ndax jàpp nañ la majeure partie agenda la bu ngeen bëgg a déroulé wéeru ko ci politique. pour bëgg a xeex moom lan la wax. man j'ai li mu wax lan la wax. parce que moom dafa jàpp li mu wax mooy. waaw ànd sàmm jikko yi mhm. agenda la ñuy déroulé. waaw parce que mémorandum bi ñu suñu mémorandum bi ñu déposé woon. 2019 ci la sukkandiku. waaw mu ni mémorandum bi waxoon nañ ci. Mhm. assemblée nationale nañ ci boole kilifa diine yi. Mhm. waxoon nañu le code de la famille. nañ ko xoolaat parce que y' a effectivement 74 articles rédhibitoires yoo xam ne bi ñu koy def dañoo trahir le peuple sénégalais. Euh, Babacar. waaw gis nga ñun ñu dama xamoon dañu war a jooy xamal lan la ñu war a def. y a des yoo xam ne c'est des traîtres laa la wax. Mm. ils ont trahi le peuple sénégalais. gis nga maam Abdou El Hadj Abdou Aziz Dabakh Cheikh al Islam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëñ Mandione Laye. El mm-hmm. Hadj Seydou Nourou Tall. Mm-hmm. El euh, Hadj Mamadou Lamine Seydi. Mm-hmm. ca jamono moo doon xalifa mi leen Gounass ak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw Ngourane Thiénaba et yëpp ñoom ñoo jàngat le code de la famille. génne ci 74 articles boo xam ne bu ci weddiwul wax yàlla wet na waxi yonent bi yéen jàpp nga ni loolu mooy li woyof kon loolu mm. garaawul daal mm. ñoom ñu jàngat ko ni d'accorduñ ci lii et pourtant kenn jëlul en compte ah seen wax yooyu ak seen seen mm-hmm. mais c'est extrêmement grave mm-hmm. ay demet mm-hmm. alors léegi ñun ñu gis loolu jàngi ñoom ci école yi ñu jàngi daal ni loolu aussi ñun bëgg nañu ñu delsiwaat ci mu naan ñu ne on a un agenda su fekkee loolu ñu tuddee agenda a un agenda le code de la l'actuel code de la famille du Sénégal. d'accord mm. yemul ci loolu même la constitution du Sénégal n'est pas adaptée à nos réalités. Mm-hmm. moom argumentaire am ci loolu la ko teg te effectivement mémorandum ñun lañ bindoon. Mm-hmm. teg ci ay poñ mm-hmm. jox ko candidat yépp bi ñu demee ci mouvance présidentielle Mimi Touré moo ñu recevoir. ñu waxtaan ak moom xamal ko ni ko ñun ay sénégalais la ñun féetewuñ fenn waaye lii daal wax dëgg bëgg nañ ko. te am nañ yaakaar ci yéen kon nan la ko jébbal. Mhm. c'est lui qui nous a reçu proposition ci penc mi rek. c'est lui qui nous a reçu mhm. au nom du président de la république. Mhm. ñu jógee foofu dem seeti yeneen candidats yeneen quatre yëpp kenn ku ci nekk recevoir ñu le même mémorandum la nañu donc moom foofu la sukkandiku euh, argumentaire pour dire que c'est un c'est un c'est un c'est un mais soit loolu gis-gisam xalaatam la bu fekkee loolu mooy agenda effectivement agenda la ñuy déroulé. en dehors de cette question là. Mm-hmm. waaw soxlawul woon sax ñuy dikk ci loolu. Mm-hmm. parce ñun ñoo ngi def focus ci cette euh, ci ci ci ci le combat mm-hmm. mais dama lël le code de la famille n'est pas sénégalais. d'accord ci ci ci ci combat boobu ngay wax mm. ndax jamono ji mbir yi nu mu euh, euh, nu mu stagné demul dikkul fii ci Sénégal donte yéen a ngi ci def jéego ndax agenda bi ngeen di wax ni ñu ngi koy déroulé euh, da ngeen di yët yeneen clamé yoo xamante ni di ngeen ko génne peut-être ci bitim réew jëmdee ko ci réewum Sénégal. bon tàmbali nañ ko déjà sax. Mm. xam nga le 20 lañ def le 20 février lañ def la grande manifestation bi ñu defoon fii. Mm-hmm. déjà le 24 février rek. Mm-hmm. saisir nañu le secrétaire général des le 24 février saisir nañu mm-hmm. le directeur général de mm-hmm. l'UNESCO oh. le 24 février saisir nañ le président de l'Assemblée nationale pour demander ko mm-hmm. l'Assemblée retiré wu ci PGA le 24 février saisir nañ le président de la République joindral ko ci tous les signatures mm-hmm. des khalifes mm-hmm. pour ñu arrêter l' agenda pro LGBT bi ñuy doxal Sénégal mm-hmm. donc kon posé waat nañ fi beneen acte boo xam ni peut être dañ ci publier dañ ci communiqué nit ñi yéguñu ko euh, xëy na exclusivité lay doon yéen mu njëkk a jaar ci fii Sénégal sénégalais yi yëg ko mais acte yi ma lay wax yëpp posé nañ ko c'est-à-dire internationaliser nañ combat bi parce que ce combat là en réalité dépasse les frontières du Sénégal c'est un boo ce qui est en jeu c'est un euh, défi civilisationnel. Mm -hmm. et la fin des souverainetés. Babacar lii. wala da ngeen wóoroo kuy xeex lii. wala da ngeen est-ce que kenn mën naa ñëw naan la non yow da nga am bi coloration ñun lii pour ñu réussir ko on a besoin de tout le monde. Mhm. kon ñun sañu ñu par par la. d'ailleurs ñun bi ñu génnee ci bi ñu génnee ci jotaay bii nit ñu bari tàmbali jóg xam nga sénégalais def ci bari ñoo xam ni dañuy confondre vitesse ak précipitation. Hmm. am ñu tàmbali ah non léegi ñu dem

dañ leen a woo ci sauvegarde des valeurs bien vrai que ni gis nañ ni am nañ blocage boo xam ne tey suñu amoon ay député mhm. yu bëree bari bari ci assemblée te bi assemblée nationale aussi bañ a jalgati yoon amaana kon ñu liñ bëgg ñoom mën nañ ko porter waaye nag loolu wërta tax i tamit ñu daal ni rek kon mhm. ah léegi nañ summi kon mbub mi ñu soloon. te daal jëm doon doon ay. député bokk ci yéen seen bëgg-bëgg mooy. Mm-hmm. mais kooku ils sont libres nag. Mm-hmm. parce que bul fàtte ni ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. ay association ñoo ko composé. d'accord association tel. am na droit ndax am nañ seen i euh, statut ak seen règlement intérieur ah, ah, ah. bu leen neexee bu ñu bëggee dem ci kii dem ci loolu engagé wul ànd sàmm jikko mais en tant que entité boo xam ne nag moo fédéré lépp muy ànd sàmm jikko moom demul ci législative bi bokkuñu. alors euh, ci ci ci beneen pàcc tamit ci xeex bi ba ba nëgë ni am na ay kàddu yu jib fan yi nag jaaxal na askanu Sénégal ndax euh, Chérif euh, Ibrahim Aïdara ci yéen la bokk. ci yéen la bokk loolu la wax mu ne ci yéen la bokk. depuis kañ ci loolu ay xam la. depuis la ci bopp. après di ma mën ci indi leeral xanaa. man kay mën parce que moom en tant que moom homme religieux moom moo ne ci yéen la bokk waxtaan na ak yéen euh, dox na dox boo xamante ni ngir ngeen def ndaje ak président de la république or mi bañ defoon ak euh, ñi nga xamante ni ñoo di imaam yi ulema yi mais yéen da ngeen na lànk ne. du ngeen dem ci boobu lépp euh, ndaje ndax yéen da ngeen koo yónni ba noppi lànk wala yéen da ngeen koo yónniwul wala c'est quoi le problème. bon xam naa d'abord bu bokkee ci ànd sam jikko yi man vraiment euh, loolu euh, yëguma ko. Mm-hmm. yëguma ko ko. amul benn jotaay bu ñu mës a def bu mu teewee aussi. ah amul loolu moom mën naa ko certifier mën naa ko man naa ko affirmer li am daal mooy xam nga bi ñu rejeté la proposition de loi. Mm-hmm. vraiment man bëgguma sax di wax ci yu demee nii. Mm-hmm. ndax ak position bu mu mën a am. ñun jox nañ ko ci te respecté nañ ko. d'accord mm-hmm. bu jógee ŋàññi ñu wala mu tuumaal ñu itin taxul ñun amuñu problème ci loolu du ñu tontu ci ay du ñu tontu ci ay tuuma aussi. waaye mu leer lu mën amal njariñ non lu amal njariñ rek la ñuy wax. Mm-hmm. waaye ay tuuma ki nangam. mu leer suñu bopp. Euh, non non non cest gis nga loolu. parce que dafa taxaw mu ne dina leen jaxaseeg dina nee na moom moo jël position boole leen loolu intention dama lay jaxasee da nga koy boole leen ak ak sénégalais moom moo wax loolu. na ci dem. na ci dem dem na ci kay yoon yoon yu xàll na waaw ah, léegi est-ce que jaxase nañu Sénégalais yi. xanaa ngeen indi leeral c'est ça non non ñun wax ju am solo lañuy ñuy tontu. Mm-hmm. wax ju am solo. Mm-hmm. ñu xam ni ki ko wax nii. il est bien intentionné. Mm-hmm. defar moo ko tax a jóg. Mm-hmm. même bu d'accord ak ñun tamit li mu wax teg na ko ci yoon wala teg na ko ci lu ñu mën a dégg. Mm-hmm. kooku ñun mën nañ ko leeral mën leeralante. su fekkente ni tamit dafa wax lu am solo loo xam ne ñun bàyyiwuñ ko xel loolu dañ koy jël en compte. parce que ñun noonu la prétendre ñu ñun dañoo xam lépp ah. waaye nag ay wax yi wax yu dul dara. duñ ci tontu ñun. ay tuuma tam nag da ngay setal nag. non non non ñun doxuñu ci foofu. Mhm. xam nga doxuñu foofu. Mhm. gis nga nit dafa kilifa gu mag da doon wax ni. Mhm. Euh, ku dul mën na waxtu wu ne mu tuumaal asgor waaye mm. asgor mënul waxtu wu ne mu tontu ci ah, tuuma yuñ ko teg mm-hmm. mënoo ko mm-hmm. ndax bis boo noppee wala déggoo tuuma yuñ la tuumaal boo ca noppee ñu ne kon dégg la mm-hmm. yaa dëggal loolu ndax dañ la daan dégg loo ma sa wax rek nga ni da nga jóg di ci tontu finalement da ngay mujj sax bàyyi li la taxoon a jóg dañ lay divertir dañ lay dugal ci lu la taxoon a jóg dafa fekk si ci yenn kàddu yoo xam te ni léeg-léeg ay accusation yi teg ci kaw ànd sàmm jikko yi ma ne ñun ñun accusation li ñu fi accusé lépp mais bii nag ba mu nee ci yéen la bokk te moom dox na ndaje. ak président Macky Sall ci laa jëm si. man yëguma fu mu bokkee ci ànd sàmm jikko yi. ok yëguma ko yëguma ko li am nag laa lay expliquer. Mhm. mais yëguma ko. Mhm. la bi ñu bloqué la proposition de loi. Mhm. dafa am koo xam ni dëkkaaleem la. muy seen nattangoo muy maas mbubb wal fajri. maas moo fa dem ñoom ñaar ñoo dëkk. maas wax ak moom woo ma téléphone paas ma ko. ñu waxtaan. mu naqarlu su sorti bi mu defoon yéen ñëpp suivre ngeen ko. mu ni nag li jaadu moom moom mi jekk na assemblée am na ñeneen ñu fa jekk na waa Alfala ensemble ji koy ñëpp booloo nangam def assemblée ndax député yi dañuy font nangam nangam. je mm-hmm. pense que loolu yëpp dégg ngeen ko. Mm-hmm. alors bi mu waxee loolu ba pare ci la ma ko dëkkandoom boobu passe téléphone. d'accord ñu waxtaan mu ni ma daal bu sañoon ñu gisee. ma ne ko man kilifa diine nga mën na maa ñëw seet si la. Mm-hmm. ñu convenir ci rendez-vous ma dem déplacé wu seeti ko. bi may dem it maas mbubb mi ngi toog am na keneen ku ko fekkee on était quatre mu ni ma daal li am te am mooy suñu jafe-jafe mooy seetaan mi am ci réew mi seetaan mi fi am mhm. nit yi diine yi toog di seetaan ba tax na lu fi yàqu loolu ko yàq léegi nag ànd sàmm jikko yi na fexe ñu dem assemblée nangam nangam lii ma leen tontu ma tontu ko ko lii ma lay wax ni publiquement xam nga ci lii ma lay wax ni ñëpp a koy dégg waaw mhm. maas mbuub laa la wax mi ngi koy fekkee y a eu un autre membre de ànd sàmm jikko yi de Guédiawaye boobu on était d'accord ma ni ko man du ma bokk ànd sàmm jikko yi du bokk par contre nag ànd sàmm jikko yi ay kuréel yu baree baree bare bari la ñoo ñooñu ku ci intéressé wu ñooñu ñëpp mën nañ leen a boole ñoom ñu waxtaan ci seen biir xool naka la ñuy def mais ànd sàmm jikko yi bokkul man bokkuma aussi man personnellement. foofu ngeen yem que su ma bokkee man. Mhm. li muy yàq muy ëpp li muy defar après. li ma mën a fédéré léegi nii dootuma ko mënati parce que nit ñi danañ ma xoole beneen bët kon. Mm. ñi nekk ci pouvoir bi tey ànd ak ñun ci combat bi mu jaral leen lu nekk ñu ciy sonn ñuy jugandoo ak ñoom daanandoo ak ñoom. Mhm. su ma ne woon léegi man damay def liste mais ñooñu maa leen génne ànd sam koy. Mm. am mm. ah. parce que benn bokk yaakaar lañ bokk nag. Mm-hmm. foofu la ñuy dem. Mm-hmm. kon xam nañ ñoom xam nañ bu baax ne ñun nekkuñu ci champ boobu nekkuñu ci domaine boobu. Mm-hmm. alors moo tax ñoom ñu man ci ànd ñun comme ni ko ñeneen bokk ci opposition mbaa feneen ku mosul politique ànd ak ñun muy ànd sam mm. ko waxee loolu mu ma sax de am nga lu am solo loo xam ne si. Mm-hmm. dégg naa ko ci wax ci te maa ngi soog a comprendre lan moo tax ànd sàmm jikko yi ñu jiital la. d'accord li ma man li ma ci notee mooy kon dama lay fekk si foofu nga nekk man ak yow ñu doon puso buy nos waaye bu ñu bokk. ci terrain ah. mm. mm-hmm. alors voilà ce qui s'est passé. Mm-hmm. on s'est fois. parce que dafa waxoon ni am na koo xam ni xaritam la te neew na pere na ni bu ànd sàmm jikko yi paree pour dem ci législative moom dana financer loolu. d'accord n'est-ce pas. Mhm. waaw alors moom nag un jour mu woo ma téléphone. parce que ça fait l'occasion bu ngeen ma may. ma expliquer ce qui s'est passé. ba ñu xam ne ñun yónni kenn yebaluñu kenn. Mhm. mu woo téléphone ni ma gisee na ak président bi mu gisee ak président dafa ni ko li ma wax ci téléphone rek quoi. Mhm. ni ma président gis naa ko ni ko waaw ànd sama jikko yi mbaam de ci jur gi la bokk. gàtt na. nee na président daan ni ko ci jur gi la bokk moo ko moo àggale lool. Hmm. mu ne ko kon recevoir leen nee na président ni ko woo leen léegi ma recevoir leen. nee na mu ni ko sama téléphone dama ko ëndaalewul mu ngi ci oto bi waaye su ma wàccee danaa leen woo. Hmm. bi mu ñëwee nag ci la ma woo ni ma léegi président daf leen war a recevoir jox ma liste bii dem quatre à cinq personnes. Hmm. ma ne ko Chérif xibaar nga ma jox. jox nga ma information. danga may may ma waxtaan ci ñi ma seqal. parce que du ma décider nag à maa ko jiite nag waaye dictature doxul foofu n'est-ce pas. Mm-hmm. ay mbootaay yu bari ay kilifa lañu ci association yi une centaine ak nit ñi nga xam ne ñu sax ci association constitué boo leen boole ñoom ñëpp ci biir Sénégal ak diaspora bi di assemblée générale bu ànd Sàmm ak xalif généraux yi nga xam ne dañoo jox ñoo ñooñu war na ñoo xam yëg yëf yi ba xam ñoom lu ci seen gis nañu ñu ko gisee. Mm-hmm. il m'a encore rappelé ba am kilifa gu tudd ma ko kilifa googu nga tudd mi ngi fi jëm si di ma seet si à vingt et une heure tey ji mu ne tekk ab diir. Hmm. daal di ma kon léegi su bu fa jógee moom nee na sax dana ñëw sama kër man tamit waa ma ne ko waa d'accord waaye yëf yi moom lu ñuy waxtaanee la. alors ma ne ko nag bu ñu noppee ci kilifa googu dinaa la rendre compte mun ma kon danaa la woo woowu ma woowu ma ko. Hmm. parce que man cëru kilifa diine laa ko jox xam nga ñun ni ñuy doxee <laughs> ñun moom xeebuñu kenn. ñëpp lañ jox cër. kilifa la rawatina koo xam ne si ne nga kilifa diine la. Mhm. am na cër boo xam ne nag dañ la ko amee dañ la koy jox. Mhm. alors ma jékki-jékki dégg mu def kii bi ni ànd sàmm jikko yi nag dañuy bu ñuy fontu dañuy caaxaan nañ dem wuy ji président moom ndax daf ñoo yilif ndax daf ñoo yilif. Mhm. moom mooy kan kan moo ko jox cutis ni ko demal nga wax ak président ci suñu diggante ak ñu gisee kan moo ko jox. xalif yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa sax woowuñu ñu dem leen def loolu te pourtant yaa bokk beaucoup d'émissaires laa wax beaucoup d'émissaires mm-hmm. te ñi ci crédible ñëpp mm-hmm. wax nañu ba am fu ñu àgg mm-hmm. ci ñu xamal leen ni leen xam nga su ma nee ñi crédible xam nga li ma bëgg wax xam naa bu baax ay émissaires yu bari walla ñoo ngi dox ci lii gis nga bi ñu ñëwee am na ci ñoo xam ne dañu wax ak ñoom ni leen président mooy kilifa réew mi ñun suñu woowee dañuy ñëw wuy si ko. Mhm. waaye ci charte nag ci condition. ah ay ay charte ngeen tëb yan yan condition xam nga benn bi bokk na ci. <laughs> président dara ump ko ci réew mi. Mm. institution la. waaw ànd sàmm jikko yi tamit personne morale la xam na suñu. adresse xam na suñu kii bu ñu bindee bataaxal bu ko neexee sax def ci convocation ndax am na sañ-sañu convoqué ñu ñun njabootam lañ. Mm. bu ko neexee mu invité ñu aussi. na bind ba ñu xam ni moom moonu woolu waaye ñun sàkkuwuñu ko gis mhm. ça c'est premier élément beneen élément bi des est-ce que xam nga ni président article 37 bu constitution bi mhm. ah. day am lu ñu ci bind lu am solo loo xam ni président daf ko waatoon mhm. bi nu koy jox réew mi ba muy waat ci 2012 ak bi muy waataat ci 2019 yëpp dafa wax ne danaa respecter loi te danaa ko respecte lu danaa fexe ba kenn du jalgati yoon léegi loolu ñun condition lañ ko def ni ginnaaw daf ko waatoon. waaw ah ñun njabootam lañu jaay nañ ñu doole au niveau de l' assemblée nationale bureau assemblée jalgati yoon moom na fexe ba ñoom loi bi ñu jàllale ko parce que amuñu droit ci téye ko loolu daf ko waatoon loolu condition la boo xam ne su ko defee danañ xam ne moom mii wax dëgg yàlla bëgg na affaire bi am solution. te tant que ko du ngeen daje pour la kon la ñuy dajeeg moom c'est-à-dire déglu bu baax li ma la wax. cest xam na li xew moom moo waatoon ni dana def yoon. Mm. te dana def lu yoon. Mm-hmm. dana veiller à ce que la loi ñëpp respecté ko. Mm-hmm. waaye léegi bu ñu ko joxee ay firnde ci am na ñu jalgati yoon. moom na xeetali askan wi ci loolu ba ñu xam ni moom lam waxoon ma nga ci ba tey waaye est-ce que moom dafa bëgg rek léegi daal ànd sama jikko yi daje naa ak ñoom. bu ñu waxee ba noppi ah Ababacar Mbuub jël na kii ni ko bon agenda bi telle chose telle chose telle chose telle chose bu pare mu ni ko Ababacar bul sori ci lii amul problème xoola lu ngeen bëgg mu réglé wu waaw lépp la ñuy réglé je damay jël benn décret créer benn nommer benn commission. Mm-hmm. boo xam ni kat partie lay doon. yéen ngeen ñëw seen élément état bi ñëw bu ko defee société civile bi ñëw sëriñ si sax ñu dugal leen ci. Mm-hmm. léegi ñu jéem a travailler ci loolu. bu ko defee yow c'est fini. loolu gis nga commission boobu fii ak 2024 du fi. mais mënoo jàpp tam ne ëngam loo bu ne mën na indi ay solution. mënoon na demee neneen également loolu mën dafa mhm. xam nga fii y' a péril en la demeure fii réew mi tàkkul deful dara. Mhm. ñun taaluñu réew te duñ duñ. Mhm. man la ku jóg di taalum réew sax suñ kaw ngay jaar ñun. ñun ñun ñun duñ nit ñuy taal ay réew duñ nit ci fitna. da jàpp na loolu kon ma rassuré ko ñun duñu non ñoom xam na ko renseignement yi jox nañ ko information yëpp ñun ñii duñu fekk fu ñuy taal am réew ñun ba ñu gisee ba léegi bu ñuy doxit wax dëgg yàlla li yoon tere rek ci la ñuy ci la ñuy jaar. Mhm. gisoo ñu def lenn loo xam ne yoon daf ko tere. defuñu ko démb te fas yéene wuñ ko def tey ak li nekk suñu kanam. Mhm. bindoo wuñ sax noonu. alors kon moom na na ko rassuré réew mi luy tàkk amul. Mhm. waaye moom. li na a am dafa jàpp ni moo gën a garaw réew mu tàkk. moom déjà bi local yi jàllee rek fi mu ne duut nañ ñu baaraam ni ñun. doon nañ ci dara léegi nag li mu jàppee statu quo moom. la bëggoon mu dem ba ci législatif yi parce que jàpp na ni moom bu ci demee ci législatif yi dana dana dana ñàkk majorité bi. ngeen ko yàqalaat. loolu moo tax nag moom kut ko kut il faut mu toog ak ANSAM ji koy ba rassurer peuple bi leen léegi jël naa décision ci réglé ko. mais décision boobu. Mhm. pour mu réglé ko sax soxlawul sax muy toog ANSAM. mais leen gis tamit a moom laa lay wax nag moo tax ñun aussi xam ne duñ ay nit yi caaxaan. waaw il faudrait que nit ñi comprendre loolu ñun dafa am dañuy wax ni ku bukki rey sa Mm-hmm. maam bu lëndëm bi xaw nga daw lu ñuul nga daw mm-hmm. waaw 72 le code de la famille mm-hmm. waaw dama la kilifa yi fi nekk ndax boobu Alaaji Abdu mooy xalifa Tiwaawan de waxuma la dafa yónni kenn de ku ko jege waxuma la dafa yónni rakkam wala doom ci moom yabalul kenn Alaaji Abdu moo jógaloon boppam cheikh al moo jugaloon boppam yónniwul rakk yónniwul porte parole yónniwul kenn moo jugal boppam laa la wax. Mm-hmm. ak ni ñu dayoo. Mm-hmm. xoola kañ lañ fi jóge pratiquement ay soixante moom soixante quinze la fi jóge mm-hmm. gis nga pratiquement ci ak mujjug dundam. nga xam ni kon du woon dootul woon ci âge laa wax. waaw rek xam nga ni am na fu mu toll woon ci wàllu ay at. xalifa Layeen xalifa yépp laa la wax. Alay Seydou Nour ñu daje fii. le 3 janvier 1971. ñu càmbar le code la famille. xam nga li moom mm-hmm. biñ ko càmbaree ba pare mm-hmm. ñoom relevé nañ ci soixante quatorze articles rédhibitoires mm-hmm. ñu ne lii ñoom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg gisee président wax ko président ni leen li ngeen bëgg lépp lay def gars yi Babacar bul fàtte ni gars yi politiciens lañ li ngeen bëgg lépp lay def yéen yéen ay kilifa ak réew mi ñu jógee foofu mu wala leen ak premier ministre d'alors monsieur monsieur Abdou Diouf Abdou ni leen man Juliette la li ngeen bëgg rek lay def wax leen na ngeen ko bëggee ñu wax ko lépp dara fouraas dal di xadeem dañoo jékki-jékki rek dégg ni loi bi jàll na li ñu waxoon dara lañ ci dul en compte. Mm-hmm. doon ngeen bañ def nañ ñu ko benn yoon en 71. 71 72. ñu ngi déete waaye la même initiative daal ni c'est pas normal Islam peut nekkatu fi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma peut-être nekkatu fi. Mm-hmm. mais El Hadj Abdou mi ngi dund. ñeneen leen ko àndaloon nekkatuñ fi mais El Hadj Abdou des na fi kon. en 95 nañu fexe ba initiative bi ñu amoon ñoom dox ci ay jéego. sonn ci guddee ci toggoo ci ay coono def ci seen alal ak seen xalaat wane seen engagement ni lii ànduñu si mhm. nañ fexe jëmmal ko ci kanamam. kon est-ce que mën nañoo jàpp ni yéen seen gisee ak président Macky Sall sax nag dina yomb. attends ma termine rek en mmh. Mmh. bi ñu ko defee loolu xalif yi fi nekkoon yépp dugalaat ci seen loxo. Mm. biñ demee Touba ci sëñ Saliou sëñ Saliou sëñ Mourtala la désigné woon moo jiite woon commission ba fa nekk ñu tëgg benn code de la famille musulman moom lañ tat moom lay wax le code de statut personnel. Mm. yamul ci loolu. ça a été déposé porté par un député Imam Mbaye Niang en 2010 à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. xam nga ko def. Mm. xoteet xotti sànni ci àll ba. Mm-hmm. moo tax ñoom dañu am seen agenda ci ay calcul la ñu nekk. respecté wuñu askan wi c'est ça la ñun nag duñu ku ñuy nax parce que ñoom fan jànge ñun fa lañ jànge ñun duñu gone goo xam ne sii rek da ngay ñëw nii rek palam palame ñu daal di jàll suñu ci yii ma la wax lii mm. te suñuy kilifa lañ ko defoon mm. mel ni dañ leen di fowe mm. ñun nag duñu permettre tey signature bu sëñ Babacar Sy Mansour bu sëñ euh, Mountakha Mbacké bu sëñ Mouhamadou Mahi Niass Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak euh, et cetera xalifa njigéen xalifa yëpp mm-hmm. Mm-hmm. ñu jël ko bëgg ko bâcler comme ça ci jouer ci mhm. ay calcul mhm. parce que y a telle euh, échéance euh, yu yu yu yu jub si donc va falloir ñu jéem a temporiser wan Sénégal yëpp ni léegi question bi am nañu yéene ci mhm. régler ko su ko defee kon daal du yomb fi mu ne léegi nag non mën na yomb

loi bi assa bureau assemblée daf ko amul droit di ko bloquer. Mm. dafa jalgati yoon. Mm. te président dafa waatoon dafa waat ni dana respecter yoon te dana respecter lu yoon. Mm. respecter lu yoon aussi tamit ci wañ loxo tamit nag. du mujjee lekk ak wañ loxo mm-hmm. force force lii il faut nga accepter ko pour lii mën a am. ah léegi bu dee loolu la kañ moom léegi ñoom su leen neexee. nañu taxaw ci léegi ñoom duñu jëfe yoon. nañ taxaw ci dañu mépriser askan wi nañu taxaw ci wane ni xalif généraux yi seen signature du dara. Mhm. nañu taxaw ci wane ni volonté populaire bi du dara. Mhm. nañ taxaw foofu. Mhm. su ko defee ñun amul problème ñun danañ informer askan wi. waaye lépp ci jàmm ak salaam dong lay am moom waaye danañ wax ak askan wi nag. waaye dund ci kenn. woteelal kii mbaa sanctionnel kii loolu ñun du suñu cër. du suñu wàll aussi. mais bien sûr ñun ci foofu la ñu des. waaye nag danañ ni. loi bi ñu yóbbu woon moom. Mhm. majorité bi ñoo ko bloqué. tamit di ngeen organiser ay manifestation bu jege élection non manifestation soxlaatu ko dañuy dellu ci askan wi rek. leeral leen leen gis ngeen yéen ñii. Mhm. yéen askanu Sénégal yi nga xam ne ay catholique ngeen. Mhm. wala ngeen aju ci bois sacré bi wala ngeen ay julit. seeni kilifa ñoom ñëpp seen i signature rek ni nee nañ lii lañ bëgg. Ela bi nee na leen yéen yéenay kan bay wax la ngeen a bëgg dara. loolu kay nag moo nag. ah en tout cas ñun ñun mais loolu sa nañ ko wax sorewul nag imam. sorewul pourtant ah, Babacar yow en âme et conscience d'accord ci loolu <laughs> yow ñun en tant que xoolal ñi ma la wax lépp. <laughs> dem ni jaar ci yoon respecter toute une procédure. Mm-hmm. ñu jalgati yoon. xam nga bu fekkoon te dañu respecté yoon. gis nga man li ma lay wax nii. Euh, Babacar yaa ngi rey mais mais c'est ah, su fekkoonte ni xoola mhm. respecté nañu yoon sax dem ba plénière mhm. Mhm. ñu ni rejeté nañu loi bi da nga xam ne respecté nañu yoon assemblée bi moo ko rejeté mais amuñu droit jalgati yoon léegi nag président bi dafa waat li ma la wax ubbil constitution bi article 37 dafa waat ni waat laa la wax de sama charge président danaa ko respecté te respecté ko mooy danaa doxal yoon te danaa veiller à ce que ñëpp doxal yoon. d'accord léegi nag. Mhm. loolu rek lañ koy wax ni ko. Mhm. moom lañ soxla ci gage. waat gam waatoon occasion gi nii pour mu jëmmal ko. d'accord na assemblée bokk gi mu bokk suñu euh, proposition de loi bi bëgg a yóbbu te waxuñu ko loolu <laughs> yoon sant ko ko. na na ko boqe na ko boqe. oui <laughs> noonu balaa waxtu bu ñuy xot ba tamit ku ne ànd sàmm ji koy tamit su ko def boobaa ñu topp. voilà parce que dañu gis ni moom mii ah wax dëgg yàlla nag. Euh, askan wi néewal nañu doole waaye wane nañ c'est le chef de l'État moo njaboote ñëpp mhm. euh, jàppale nañu fii ah mhm. nañ daw gaaw ni ko léegi président nag ah, kon bulaa bi jàll na ah léegi amul problème léegi des nañ ci waxtaan. déggoo am alors ba tey ci wàllum sàmm jikko itam bu ñu ko waxee sàmm tam kàddu lu war la. waaye dañu gis tam ci euh, jëmm ji ñu doon waxtaanee léegi muy Chérif ay dara daal di addu euh, ci ci même waxtaan bi sax nag la la jukkee lu ni mel. Mhm. ba ŋàññ li nga xamante ni moom moo di taxawaayu wolof yi euh, ba tax na fi mu nekk nii ñu ngi indiwaat poser le débat ci diggante xeet ak xeet kàddu yu ni mel ndax mënu koo ak taxawaay bi ñu mënti am fédérateur bu ñu mënti ñu ñu war a doon est-ce que kilifa yi war nañu amee position bu ñu mel di wax wax yoo xamante ni da leen di da leen di xaajale comme shérif li mu def. warul warul sàmba sulum gay sax maanaam ku mel ni man. Mhm. nga xam ne tekkiwuma dara sax waruma. Mhm. waxuma la ak kilifa. kilifa euh, vraiment xam naa ni sax du nekk à l'aise nag pour wax ci. Mhm. ndax Sénégal dafa naqaree waxee. Mhm. ñu bari danañ jàpp ni xëy na li mu waxoon ci ñun mooy tax ma sawar ci wax ci mhm. mhm. mais ñun loolu vraiment du suñu mbir. waaye jàpp naa ni kàddu yu mel noonu daal xajul ci Sénégal. jàpp naa ko wax dëgg yàlla. du moo ko fi njëkk a def nag. du moo njëkk a. du moo fi njëkk def lii wax diggante wolof yeeg bien sûr Penda Ba. Penda Ba yaa ngi ko rappelé wu. Penda Ba fii la wax saaga wolof yëpp. dégg naa promotion ko ci fekk. ah bien ah. déggaat nañ fi keneen koo xam ni invité nañ ko ci palaato télévision itam. Mhm. dama koy bañ a tudd. waaw on comprend mu mu mu daana fu mu waxaat reprendre wax yooyu. mais bu doon jàpp ni waaw bu doon wolof yi. Mhm. loolu nag laa jàpp ni. Mhm. wolof yi man de wax dëgg yàlla du li may wolof moo tax. waaye wolof yi xam naa ni xeet wu tolérant lañu wu ubbeeku lañu. wolof yi ñoo majoritaire ci Sénégal. te terewul ñoom la ñuy yàq kàddu yu ñaaw yi mm-hmm. ay sàcc lañu mm-hmm. ay fenkat xool ma baat boobu mm-hmm. Hmm? loolu diis na de torop torop sax nga askanale ko mbooloo moo xam ni mbooloo lañu mbooloo moo mën a dem da ko fekk ku jub da ko fekk ku jubadi waaye wër a tax nga généraliser ko ci ñëpp soo seqee nit it am ak moom problème yi tamit réglé ko ak moom waaye yow ka nga bokkal ndey ak baay sax waruñu ko cee boole. sa xarit bi ngay àndalee waruñu ko cee boole. lim ko rek sa soxna ak sa doom it waruñu leen cee boole yow mi ma seqal naa traité ak yow. Mhm. man yaakaar naa ni loolu moo gën a dëppoo ak maandute. Mhm. Mhm. waaye gis nga euh, bu ñu seetloo surtout man jeunesse bi sax laay waxal. parce que xëy na jeunesse bi laa am sañ-sañu wax ak ñoom. nga jeunesse bi nañ gën a veillé ci. question yi question yu sensible la question waaso lu sensible la mm-hmm. mën naa taal am réew mm-hmm. ci lu gaaw ndax nit ñi sëñ Babacar du ñëpp a mën a dékku ñëpp a mën a encaisser mm-hmm. ñëpp meluñu noonu am na ñoo xam ni pour un peu sëñ bi mën nañ mën naa dégénérer dañuy defante ba mu mat kay loolu kon nañ bàyyi xel ñooñu te defante su xisee enclenché wu xamal fan lay tàmbali mais bul xam fan lay yem ndax nit ñi ku nekk am nga mbokk ku ne da ngay daal di jël position dana am ñu am jafe-jafe. Mm-hmm. ndax ñoom ñëpp seen mbokk lañu. da nga gis koo xam ne si yaayam alpulaar la papam wolof la. Mm-hmm. da nga gis moom dana am problème bu boobaa. Mm-hmm. mais question yi na ko xale yi gën a bàyyi xel. képp kuy wax ci luy teqale. ak luy suufeel ak luy bodd yi tamit. wax dëgg yàlla. kum mën a doon kooku du ku ñuy déglu ci wax jooju. kenn du ko déglu. koo xam ne si dafa bëgg a utiliser politique xajale yi man dama jàpp ni politique ñi pour defar rek la mm-hmm. jàpp ni moom war a doon seen jublu mm-hmm. kon loolu lu ñuy xàjjale sénégalais ak di monter kii contre kii wuru ci am mm-hmm. war na maa mën a bokk ak yow ndey ak bàyyi nga far ci mouvance présidentielle ma far ci opposition wala ma far ci mouvance présidentielle nga far ci opposition terewul war nañu bokk sax même cours bi li ñuy bi la war a exactement nga xam ni sax man dama jàpp ni tey su ngeen demee xeex ba accéder au pouvoir te fekk na man acteur politique la certes bu ma nekkee ci opposition mën naa opposé wu waaye mais su ngeen réussir yéen ñi yor réew mi pour kan la du askanu Sénégal. kon question yooyu tamit nit ñi vraiment buñ ci créer benn. Mm-hmm. Euh, étincelle euh, waaw pour mën ci tar. que faudrait-il faire jamono jii tam question diine aussi ak pas-pas. noonu la sensibiliser aussi. waaw parce que gis nañ tam dérive yi dafay bëri ci côté. ñi ñi woote woo kilifa diine mm-hmm. tamit. mais absolument seen discours yi. mais kilifa euh, ça laisse à désirer des fois. Mm-hmm. kilifa diine kilifa diine nag yomb na ci Sénégal gi. kilifa diine mooy kat kilifa diine dafa war a am ay critères. Mm. aw sant taxul kenn doon kilifa diine. lu waay di wuyoo da koy niru. bien sûr waaw. kilifa diine. Mm-hmm. amul aw sant wu tax nga doon kilifa diine amul. Mm-hmm. yonent Yàlla Ibrahima bi mu waxee borom bi borom bi am lu mu ko dël mu ne ko ak sama njaboot dañu ko déedéet mm-hmm. Ibrahima samay mbir nag doxul ci caaxaan. ku ci jub rek mu appliqué ci yow. ci la kon du ay sant. ak maa bokk nit deret ak fii waasu wi laa bokk tax nga tong ci kaw nit ñi det loolu amul mm. kilifa diine ay critères la ay aptitude la ay compétence la lu nit ki di am mm-hmm. ci melokaanam ci njubam ci mën a defere mais surtout aussi ci am fu mu féete askan wi aussi mm-hmm. nitu yàlla mënoo ni da ngay woote yàlla ba noppi sëñ bi mm-hmm. foo waxee njaaxum nga wax di di di yëngal ay xol ak koo mën a jàpp nag yaakaar ni fi mu nga àgg nga dem nga arasaka ñëw ci tamit maanaam fii lañ lay xaar mm. sëñ Abdou Lahad dafa am lu am solo lu ma waxoon fii lañ toog leen xaar ah. boo fenee ñu weddi ko boo defee lu bon ñu wax ko mm-hmm. c'est-à-dire il faudrait que ñu xam ne du nit ku jóg ku nekk rek bokk naa ci famille sàngam tax na nga doon kilifa ak diine déedéet mm-hmm. loolu jeunesse bi il faut ñu yeewu ci mm-hmm. kilifa ak diine mais xam-xam lay doon kilifa ak diine mën-mën lay doon ci yiw ci lu rafet ci jokkale ci defar ku bëgg a daanu mu yëkkati ku nar a sonn mu euh, euh, fexe bi génne la ci xat-xat yooyu hmm. loolu mooy kilifa diine <laughs> wane yoonu borom bi da lañ ko xamee woon waaye léegi dañuy gis mbooloo yoo xam te ni cakkaaya koy yo koy yo koy kii mais yéen tamit dans tout ça parfois ñu bëree bari bu yenn yi amee ñuy sàkku wala sax ñu dem ba naan ani ànd sàmm jikko yi ci lan parce que yenn dérive parfois bu génne dañu naan ñoom kat nag war nañ mën di parfois di intervenir pour di xamal nit ñi wala hmm. liñ bëgg euh, kenn mënu ko hmm. xeex bi tamit mu gën a dëgër peut foofu la ñuy ah, waxee ah, kañ waaye xam nga dafa am nit ñi ñaar yu ñu jaabatle hmm. xam nga maa ngi nii wax naa ci waaw kon noppi wuñ ci dëgg la alors beneen bi ci des tamit mooy lii xew ci suuf si yëpp kenn mënu ci wax lépp lépp nga wax ci mënut a nekk lu ne finalement. Mhm. nit ñee mujj ni kii ku soof la. <laughs> lu jóg nga wax ci. Uh-huh. ce n'est pas possible. mënu mhm. nekk sa à li mën a am te mën a am mooy mhm. ñun nañ féete ci valeur yi. d'accord ñii féete ci koom-koom bi. ñii féete ci nangam lii mooy Sénégal. mais mënuñu ni lu jóg rek faw ñun ñoo ñoo ci war a wax. heure wax dafa am fa ñu koy waxee. exactement dégg naa wax dañ dafa jooy ñu ne ko loo jooy. mun dañ maa wax te jotaguma <laughs> li <laughs> nga noonu xam nga xam nga Aïda nag ndaanan la. <laughs> damay jéem a kiiwantu olof rek xam nga. bañ ah. bañ nga génn di ma di ma sànneeti ay xeer faw ma parce que man laa dernière fois bi ma fi jaaree yow. <laughs> Eh, gis naa nag def na ay effort ah. ah. jàmbaar la. mbaa dem jël ci li ngeen jël comme yéen da ngeen ci dëkk rek. ma <laughs> uti da ngeen jox kenn. <laughs> ma uti force daal. Ah, maa ngi non non non non Babacar dafa ñu noonu affaire yi ubbeeku da ngeen na jël li ngeen jël. ah ma ma boole sama copain temps yi gis naa ne sax nii la ma def. sama copain dam bu léegi temps yi nii la ma def dafa wan ginnaaw. ah bon. Ah, léegi boole tut ma ci lenn. loxo qu'est-ce qu'il a. ah déet question boobu laa la bëggoon poser. xarit yu ah, bees ah déet il faut il faut le poser. xarit yu bees xam nag ànd sama jigéen dafa xam <laughs> mbiri ay mbir a ngi ci biir daal alors euh, sëñ Babacar amoon nañu te waxtu wi euh, daanaka xoj nañu lool sax mm-hmm. amoon nañu te sekk ak yow waxtaan euh, wu ni mel ñu jaajëfal la rek ci invitation bi nga wuyu si mm-hmm. waaw jërëjëf vraiment kontaan naa lool. Mm-hmm. yaakaar naa sama hibernation gaa yi nee nañ ma fan yi damaa lëlu woon. waaw boo yéen a mu njëkk am ci plateau télévision. waaw ñun ñun mën nañu xëcc xam nag <laughs> ku lakkale la. <laughs> saa yu jógee voyage ma poñe ko. lakkale la def laa la wax na maa topp ba aw ma pexe. Ah, ci la bokk léegi léegi maa ngi nii maa ngi naa ñëw naa. Mm-hmm. ni ko d' autant plus que sama turandoo laa fay fekk. kebe kebe bi su ma noppee wutal ko benn affaire. waaw ah. waaw am na am na yu nekk. Ah, vraiment mais kontaan nañu vraiment ci ci jotaay bi. Euh, Sénégal daal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. Euh, nit ñi nañu génn ci posture adversité yi ñu nekk. Mm-hmm. Euh, man ak yow nu ñu bañ a bokk xalaat. waaye gëmal ni bëgg naa réew mi naa gëm ni bëgg nga réew mi te kenn ku ci nekk acte yi muy posé li muy wax ak li muy def it jàpp ni pour le bien du pays la su ma juumee jàppale ma ci sama njuumte loolu mm-hmm. man it naa nangu ni damaa juum ñu jàppale ma ci sama njuumte loolu bu ma ci dëgër mm-hmm. yow tamit kazalika man mm-hmm. yaakaar naa ni Sénégal ensemble ñun ñëpp ñoo ko war a tabax ñoo ko war a tabaxandoo ñi nekk ci politique bi nañu gën a assainir li ñu def. Mhm. te askan wi rek tax di def ay intérêt bañ cee topp. Mhm. ñu fal la tey xamoon la ngay jël car rapide ak nangam. 6 mhm. nga def tàmbali di. Euh, baari ay yor ay immeuble gaari ay ranch donc vraiment loolu ça pose problème. kon ñun ñëpp nañ jiital alalu nañ jiital intérêt askan wi. nit yi diine it ñu ñuy wax diine. vraiment diine suñ koy wax diine tax ñuy wax. li sëñ Cheikh euh, Tidiane si almaktoum daan wax ay caaxaan mhm. baaxul. Mhm. baaxul caaxaan. baaxul mu caaxaan baaxul. bu ñuy wax diine. Mhm. diine moo tax kon kilifteef ku ko ciy am loolu du ay caaxaan. loolu taxawaay la. loolu posture la. loo xam ne nit ñi ñëpp dañ koy man a waat. Sénégal gi kan nga fi wax Alaaji Abdou mu ciy sikki sàkk. ndax posture am. doxalina lan lañ jàpp. te waxtu wu ne dafa daan jëm. gis nga dafa am lu mu mës wax loo xam ni man ba léegi bokk na ci sama yóbbal. sama viatique. mooy su ma fekkoon man taxawaayam dëkk buy takk. Mhm. wala ren Sénégal war a takk. Mhm. mu yor guuxum ndox mara naan bay bëgg a dee muy guuxu ndox. Mm. da koy sotti ci sawara wi même bu xamee ni mënu koo fay dana ko ca sotti moom te loru te soxla woon na ndox moom. Mhm. kooku mooy kilifa diine. kooku sant si taxul mu doon kilifa diine. taxawaayam boobu moo tax mu doon kilifa diine mhm. loolu nag na ko jeunesse bi xàmmee mhm. ñoo ngi am mbégte di sant bu baax wasalaam jërëjëfati jërëjëfati waxtaan wi amoon na solo Babacar tàggatoo xam naa ne dafa yàkkamte yegg dañ ko libéré rek <laughs> comprendre nañ ko jaajëfal également ñi nga xam ne ñu ngi doon teewlu li nga xam ne moo di seen émission ultimatum amoon dañ mbégte bu baax a baax di pencoo ci wàllu wi ni mel jaajëfal ñëpp di joxe dig daje ba beneen yoon incha allah sax xanaa bu fekkee waaw waaw waaw yow de xam naa après ramadan bi ngay ngay jox waaw ci mbégte mbégte koor nañ lay xaar mbégte koor. voilà loo xam ne nag moom du ko du parce que ñoo fi ci koor. fekk leen ngeen di kii di daanoo kii di jooy moom. xam nga loolu te sama xol dafa woyof damay kii. yow daal guddi lañ la fi woo bu ñu koy woowatee. <laughs> nañ dogu ba pare rek. di nga ñëwaat man maa ngi jël risque benn yoon. di la génne bëccëg. mi ngi noonu loolu xalaatu ma ko. <laughs> alors jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf yéen ñi ñu doon seetaan euh, Omdyto merci Laye Fall également euh, di leen euh, kon wax ni c'était le dernier numéro de la semaine jox leen dig daje rek ba lundi incha allah wala semaine prochaine rek ci ultimatum ak yeneen i ganam. Mm-hmm.